أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratu ala imran tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu fas yéene jël juróomi aaya muy aaya 33 34 35 36 37 juróomi aaya yi liñ ciy jël comme bind mooy juróom-ñetti mbir juróomi aaya yi yàlla mu ngi ciy jàngal juróom-ñetti mbir yi ñu war a jël def ko mu nekk ay dars yi ñu war a jële ci juróomi aaya yi loolu li ci njëkk mooy sunu borom subhanahu wa taala mu ngi leeralal bayaan ifdaalullahi taala wa inaamihi ala man yasha bokk na ci aaye li ñu ciy jàng tey mooy borom bi subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ne ay xéewalam ak ay ngëneelam moo koy jox ku ko neex yàlla subhanahu wa taala ay ngëneelam ak ay xéewalam ku ko neex la koy jox yàlla moo ko yore ci loxoom innal fadla bi yadillah yutihi man yasha xéewal ngëneel yàlla moo ko yore ku ko neex la koy jox kon nekkul dafa am ñu ñu ko jagleel déedéet comme ni ko nit ñi di gisee ah diw dee ah comme foofu la bokk moom wax dëgg yàlla moom loolu yayoo nag déedéet sunu borom moom yëfam ci loxoom la ko yore ku mu neex rek mu jox ko moo xam foo mën a bokk moo xam ku la mën a jur moo xam da ngaa ñuul moo xam da ngaa weex xoolal Bilaal su fekkoon ne ci diine ji am na ci ku war a am place war a jege yonent bi ba war a jël nodd di noddal yonent bi nga xam ne yonent bi julli yi mu julli yépp bilaal moo ko nodd tey est-ce que amul woon ci der yu weex ñu jege yonent bi ñu yeyoo loolu ah arab lay doon de waaye xoolal bilaal bal bilaal am na lu arab amul bilaal laa wax am na lu ab arab amul ku xam loolu kan moo may wax loolu keneen bilaal laa wax am na lu ab arab amul keneen keneen ah baat bu neex xoolal xoolal yéen ñëpp ku nekk li mu indi nuroowul ak moroomam te ba léegi waxagu leen li ma bëgg a wax keneen bilaal moom doog moom mos a yéeg ci kaw kaaba gi nodd ci kaw kaaba gi moom doog moo fi mos a yéeg nodd keneen amatu ko bisu fatxu mag bi yonent bi daanale xërëm mi ba pare bilaal moo yéeg ci kaw kaaba ci kaw ñëpp taxaw mu ne allahu akbar allahu akbar loolu moom rek moo ko am wala loolu rek te nit ku ñuul la est-ce que kon fekkoon ne diine lislaam diiney xeet la diiney deret la diiney mbokkoo la diiney kii moo ñu gën a jege kon bi daal fan la jóge Éthiopie Éthiopie nekk jaam njëngu dugg ci diine ji di mbëkkante ba jege yonent bi ñaareel bi mooy bilaal ma yoroon magasin wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam liy dugg ak liy génn ci loxo bilaal la nekkoon julli yonent bi mos a julli ci àdduna yépp bilaal moo ko noon moo tax keroog bi yonent bi génnee mu ne leen noddatuma noddatuma noddu de Abubakar ne ko lu tax da ngay nodd mu ne ko nodduma Abubakar ne ko bilaal da ngay nodd nag mu ne ko ah yow léegi danga maa bëgg a xamal ne yaa ma jëndoon loolu nga ma bëgg a jaay mu ne ko déet déet waaw kon bul noddati kon baa bul noddati bilaal daal di génn Medina dem saam mu nekk fa ba Abubakar génn àdduna ba Omar toog ci xilaafa gi bilaal ne dama namm yonent bi waa namm Medina xaar ma dañ bilaal ñëw fekk salaatu li ci des tuuti la mu yegg si ci kaaba gi jàkka ji ci Medine mu ñëw rek dajeek Omar dama ne waa kii du bilaal mu ne ah kay bilaal foo nekk mu ne maa ngi saam ah bilaal daal moom yow moom waa tey xanaa mag dañuy noddal bopp mu ne xanaa ma barkeelu ci bilaal yéeg ci minbar bi mu daan yéeg daal di fàtt ñaari nopp yi bi mu ne allahu akbar allahu akbar waa Medina dañ doon gént dafa ne yonente bi dafa dekki mu daal delluwaat allahu akbar allahu akbar ñi doon nelaw ñëpp yeewu bi mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah nit ñi dañoo ubbi seen buntu kër yi di njëkkante jëm ci jàkka ji ne kii kan la baadu kii du xanaa du bilaal bi mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah yonent bi romb ko yonent sak loolu la daan def bi daa bu daan nodd bu ne ashhadu an la ilaha illa allah répété ko ne ashhadu anna muhammadan rasul yonent koy romb nii dugg ci minbar mu wax loolu gisul yonent rek mu daan xoolal loolu mu am kon islaam yàlla subhanahu wa taala moo yor ay ngëneelam ak ay xéewalam ku ko neex la koy jox ku ko neex ñaareel bi mooy bayaanu anna isa alayhi salaam laysa bi ibnillah dinañ jël ci sunu leçon tey mooy isa alayhi salaam yàlla daf ñuy leeralal ne du doomu yàlla yàlla amul doom du jaadu de du jaadu de ab jullit di déglu waxtaan boo xam ne dañ ci wax yàlla dafa am doom wala nga toog ci barab boo xam ne dañ naan yàlla am na doom nga toog wala ngay saxal loolu ab jullit bu pas-pasam wir saa yoo gëmee ne yàlla am na doom nekkatoo jullit bokkatoo ci lislaam yow parce que pas-pasu jullit ku bokk ci lislaam mooy yàlla amul doom yàlla amul doom yàlla amul soxna yàlla amul dendandoo yàlla amul mag amul rakk amul ndey amul bàyyi bal ñi nekk ci kaw suuf yépp ay jaamam lanu in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahman abda ñi nekk ci asamaan ak suuf nit ak jinne ku mu mën a doon booy dikk ci yàlla ab jaam ngay nekk yoroo beneen garaat bu dul jaam kon yàlla ay jaam la am amul ay doom ak i mbokk wala saalisu salaasa yàlla ñetteelul ñetti ñi comme niñ koy waxee un un du père et de fils et de Saint-Esprit yàlla amul loolu wala saalisu salaasa bal ñuy wax loolu ak di ko def ak di ko gëm yàlla dan ay yéeféer lañu laqad kafara allazina qaalu inna allaha saalisu salaasa yàlla nee na ñooñu ay yéeféer lañu kon yàlla isaa du doomam wala saalisu salaasa yàlla ñetteelul ñett yi bal huwa abdullahi li wóor tey mbir mooy isa alayhi salaam jaamu yàlla la jaam la comme jaam yépp ni ñun ñii ni ñu nekkee jaam ñi ñu jiitu woon nekk ay jaam yonent yi nekk ay jaam noonu la isa nekkee jaamu yàlla waaye du doomu yàlla ummuhu maryam isa yaayam way juram bu jigéen mu ngi tudd maryam wa jaddatuhu xanna maamam bu jigéen mu ngi tudd xanna maamam bu góor mu ngi tudd imran im imran kon saar bi lan la leen di fàttali yow ah kon saar bi kan lañ ko tuddee maamu isa maamu isa bu góor mu ngi tudd si lu ko indi maamu isa mu ngi tudd imran ku góor ku jigéen ki mu ngi tudd hanna hanna ci arab hanna min baytin sharif ci kër gu tedd lañ bokk kër gu baax waaw këru nit ñu baax fi bani israil ñu ngi bokk ci giir googu tudd bani israil kon isa bani israil la bokk waaye xoolal waa banu israil lan lañ ko wax lan lañ teg yaayam yemuñ ci ne doomu njaaloo la ñoom yahudi yemuñ ci ne yaayam dañ ko waroon fooba am doom waaye dañu ne dañ ko wogoon rey yàlla yëkkati ko kaw asamaan ngi leen di wane banu israil ñu bon lañ danañ fekk ci alxuraan yàlla di ñu wax mbonuk banu israil la tajidanna asadda nnaasa adawatan lillazina amanu alyahud bu nit ñi xamoon loo rek noppalu su nit ñi xamoon na yahud moo gën a bon ci kaw suuf kon dañuy noppalu waaye tey lu doy waar mooy nit ñi yahud yooyu seen soppe loolu moo tax tey alamul islaam yi mënuñu am jàmm gis ngeen yahud yi liggéey bi ñu liggéey Égypte koor gi ak léegi koor gi ak léegi deux cent vingt personnes rey nañ leen fa cinq mille personnes blessées cinq mille vendredi mu ñuy juma lan laa leen waxoon xutba juma ñaata la ñoo blessé woon ay cent samedi bi deux cent vingt lañ yegg cinq mille blessés te jeexagul ba léegi parce que ñee ñi ngi ŋànk fi ñu ŋànk ñee ñi ngi ñaam ŋànk fi ñu ŋànk waaye lu ci kersa rek ak ñàkk jom ak mooy àddina bi li ñuy wax lañ gëmul démocratie bi ñuy wax tubaab yi dañuy wax démocratie foo dégg tubaab naan démocratie jullit amu fa islaam amu fa doole mais bépp dëkk bu islaam am doole amul démocratie foofu moom doole karaasi moo fa nekk doole karaasi bu dee nag yeneen dëkk yi nga xam ne comme ñun ñii la nga xam ne gëmuñu lislaam dañuy jéem a wax nekk leen ci démocratie diñ jéem a jàppale te affaire bi bu jógee Égypte Tunisie la jëm parce que déjà commencé na fexe nañ ba rey fa benn waay taqal ko état bi benn député rey ñu sax nit ordinaire yi député maa ngi seetaan benn télé bu tudd ahraar al mustaqilla al mustaqilla la télé bi tudd journaliste bi naan boobu yëf yi mu ngi commencé Égypte waa ji di mettre garde waa Tunisie naan leen na ngeen def attention parce que mbirum bu jógee fa la jëm boobu dara xewagul ah waaw waa ji di mettre garde Tunisie naan leen def leen attention parce que mbir mi mu ngi Égypte ci ci yéen la jëm wallahi ay lundi la mardi mercredi jeudi ñu yóbbu ko Tunisie benn député bu génn këram ñu dóor ko bal mu wat mbokk yi kon dinañ jële ci sunu darsu tey yàlla ay xéewalam ku ko neex mu jox ko waaye isaa du doomu yàlla bal yàlla amul ñetti yàlla isaa jaamu yàlla la yaayam mu ngi tudd maryam maamam bu jigéen mu ngi tudd xanna maamam bu góor mu ngi tudd imran ci kër gu tedd la isaa bokk ci famille ci xeet wu tudd banu israil ñetteel mooy istijaabatillahi taala li duaai awliyaihi sunu borom subhanahu wa taala day nangu ñaan ay xaritam képp ku góorgóorlu ba nekk xaritu yàlla boo ñaanee yàlla rek yàlla may la waliyu yàlla yi yàlla day nangu seeni ñaan kama istajaaba li xanna comme yàlla ni mu nangoo ñaanu xanna xanna mooy kan yow kii laa wax kii kan mooy xanna wala da ngaa génnoon jàppi indi naa montre yi de te yu rafet laa indi xanna mooy maamu isaa dafa ñaan yàlla yàlla daal di nangu ñaanam wa razaqaha al walad dafa ñaan yàlla yàlla wërsëgal ko doom ah doom jooju wa aaza bintaha wa waladaha min alshaytan rajim dafa ñaan yàlla yàlla may ko doom doom jooju yàlla aar ko yàlla aar doom jooju aar doom ji juddoo ci doom jooju yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku juddu seytaane dina la tàpp ba mu des ñetti nit ma min mawludin yulad amul benn xale buy juddu illa naxasahu shaytaan loolu seytaane dina la tàpp ci sa xotti taat mu ne ba mu des ibnu maryam ba mu des ibnu maryam mooy doomu maryaama mooy kan isa wa ummuhu ak yaayam ak man yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala abu hurayra mu ne su ngeen bëggee xam dalil bi foofu mu ne wa inni uizuha bika wa zurriyataha min alshaytan arrajim loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunnaal yoonal góor buy sëy ak soxnaam mu jàng ñaan gi ndax seytaane bañ a laal doom ji seytaane bañ a participer ci sëy bi ban ñaan la bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana ee yow yàlla yal nag ma soril seytaan nga soril seytaane li ñu nar a wërsëgal ci sunu sëy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku jàng ñaan gi sëy boobu ngay sëy ak sa soxna su ci doom naree judd seytaane du laal xale boobu gis ngeen yaayu isa dafa ñaan yàlla subhanahu wa taala ne ko dama lay ñaan doomu waaye yaayu mariam dafa ñaan yàlla ne ko maa ngi lay ñaan doom bu góor doom boo xam ne su ma ko juree ci jàkka ji rek laa koy bàyyi aw ma ci moom soxla na jaamu yàlla liggéeyal yàlla loolu dong laa bëgg ci moom ñaan googu yàlla daal di koy nangu waaye yàlla may ko doom bu jigéen loolu bokk na ci tey li ñuy jëlee ci sunu dars ñeenteel bu ñuy jëlee ci dars bi tey mooy mashruiyatu nazar lillahi taala wa huwa iltizamu almumin ab taa taqarruban ila allahi taala mooy yoonal nañ nazar lan mooy nazar mooy nga warlu jaamu yàlla ci sa kaw bu teguloon ci sa kaw nga def ko farata ci sa bopp loolu mooy nëzër masruiyatu yoonal nañ an nazaru lillaahi nga nazaral yàlla suñ bëggee xam lan mooy nazar wa huwa iltizaamul mu'min at-taa'a nga jël mbir loo xam ne nekkuloon farata ci yow nga def ko farata ci sa kaw lu tax nga dugg ci loolu mooy taqarruban ilallaahi taala ngir nga mën a jege yàlla loolu mooy nazar mën nga ne léegi damay ñaan yàlla damay def examen maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma bac bu ma yàlla mayee dinaa ko wooral juróomi fan waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma liggéey su ma yàlla mayee liggéey sama premier salaire dama koy saraxe maa ngi ñaan yàlla mu may ma nangam su ma yàlla mayee nangam dinaa def nangam loolu nga wax léegi farata la nekkatul sunna fi yow da nga ko war a def fal force loolu danañ ko jàng tey ci sunu dars bi juróomeel mooy bayaanu fadlu zikri ngëneelu tudd yàlla alal unsa ngëneelu fadlu zakari ngëneelu góor alal unsa ci jigéen waaw góor ak jigéen tollowun de dunu benn de góor moo ëpp kàttan jigéen ar rijaalu qawwaamuuna walaysa zakaru kal unsa inna sa'yakum wa ma xalaqa zakar wal unsa inna sa'yakum la shatta yàlla nee na li ma bind ci góor ak jigéen ñoom ñaar seen jëf dafa wuute ñoom ñaar seen jëf dafa wuute kon loolu danañ jàng tey ne sunu borom subhanahu wa taala bi mu sàkkee góor sàkk jigéen ñoom ñaar dafa def daf leen a daf leen a wuutale tolloowuñu fi baabi nahwa di bil amal wal waajibaat ci liggéey nag ak mbir yépp danañ fekk góor moo fa gën a taxaw jigéen jaarte ko ku tey ko woote loolu kon loolu danañ ko xam moo tax tey ñiy woote ne dañu bëgg a tollale góor ak jigéen dafa am mbir yoo xam ne sax xel da ko nangul suñ ko waxee nii ci kaw it ba jigéen ñi déggal leen bëgg leen a topp wala yahudi ak nasaraan yi nekk ci suuf bëgg yàq l'islam parce que yàlla adduna bi moom moo ko moom te dafa dafay wàcce benn benn organisation benn dundin benn dundin la fi yàlla wàcce benn dundin ba mu bu mu bëgg nit ñi dundeeku benn doxalin yàlla mu ne kër góor moo ko jiite dund bi ñuy dund góor ñi ñooy jiite jigéen ñi topp seen ginnaaw léegi nag bu tubaab yi ne loolu moom du normalul pourtant dañ naan normalul ci kaw waaye ci biir sax dañu xam ne normal na bu ñu bu ñu bu ñu dugg bu ñu solee benn remorque moom fees del ak ciment ñu droité ko ci buntu kër gi ñan la ñuy wax anañu ah lu tax ana xale góor yi la ñuy wax wala ana xale jigéen yi ah an lu tax duñu naan xale jigéen yi bu doon bu doon ay saaku ceeb yu ñuy wàcce la ñan la ñuy wax suñ ne woon ana xale yu góor yi xale yu góor yi ne woo leen xale jigéen yi xale jigéen yi lu ñuy wax tey da ngeen ñoo yëpp ana góor ñi kon kay ah kon kay góor wax dëgg yàlla te ci ci benn misaal boobu rek laa ko joxe de yéen xam ngeen yi ci des ku nekk mën nga kaa eggali ci des kon nag maadaama loolu góor la kon nag góor yi ñu war a jiite ah beneen bi même ci fit ci fit góor ak jigéen ko fit soo gisee ñu naan benn jigéen bu mu tukki lu dul mu ànd ak maharam mooy jigéen daa néew doole xam nga yonent lu mu tuddee jigéen xam nga yonent bi lan la tuddee jigéen verre butéel verre la leen yonent bi tuddee mu ne rifqan bil qawarir def leen ndànk ci jigéen ñi ci verre yi verre loo ci xalaat dafa gaaw a toj dañu def leen ndànk ci jigéen ñi ci veer yi parce que dañoo gaaw a toj kon nanu xam ne sunu diine dafa am aw yoon wu mu rëdd di sàkku ci ñun ñu jaar ci yoon woowu yoon woowu nag tey tubaab yi dañoo ñëw pour jële ko fi lu yàlla wax rek tubaab yi pare nañ pour kenn du dund loolu gis ngeen lépp lu lislaam wax ne dagan na tubaab yi dañuy ñëw ne baaxul jongal jigéen Sénégal dañ cey génne loi ku ko def dañ lay tëj pourtant islaam daf koo nangu pourtant li diine ji def cee wax miraas ci islaam góor day jël ñaar jigéen jël benn waaye ci yoonu tubaab yi ñoom ñaar ñoom ñoo yem ku nekk benn ngay jël walla te yàlla moo wax dëgg ne góor na jël ñaar léeg-léeg nit ne pourquoi góor di jël ñaar lu tax te jigéen nekk ci nit góor nekk nit non du question nité bi charge bi la charge bi dépasse bi da ngay nekk ak sa sœur ngeen bokk ndey ak baay seen papa gaañu ñu jaay kër gi ñu séddale ko 3 millions ñu jox la 2 jox ko benn moom mu jël bennam fas ci nafaam ba pare toog ci kër gi kuy joxe dépasse ah kuy fay courant kuy fay ndox moom ci boppam bu feebaree koy faj te loolu yëpp wala bosam moom mu ngi ci dem di jënd lal jënd armoire jënd yére jënd takkaay jënd jënd jënd léegi yow xaas sa xaas bi nga jël ci nga koy dundal moom wala mu yóbbu xaalisam këram may ci jëkkëram yow du la ci may may ci ay doom yow du la ci may te foofu mu nekk bu fa amee problème bu dawee ci kan lay ñëw ci yow yow nga jël nga yaat ko en charge moom ak doom yi yëpp kon kay yàlla bu ne góor na jël ñaar yàlla wax na dëgg waaw waaye nag ñoom comme du nu dund diini du nu mun a xam yàlla li mu bëgg moo tax ñoom ñu taxaw rek ci côté bu négatif lu yàlla wax rek ñu ne du noonu kon bayaanu fadlu zakari alal unsa ngëneelu góor ci kaw jigéen waaw jawaazu tahassur wa taassuf lima yafuutu al abd min al xayri lazi kaana yaamaluhu yaamaluhu danañ jàng ba tey dagan bi nga xam ne dina ko dagan a tahassuru maanaam am naqar wala am métit wala découragé ci ay yiw yoo xam ne day romb jaam ab jaamu yàlla su ko yiw rombee daf ko war a mettitlu daf ko war a naqarlu daf ko war a ñaxtu dafa war a feeñ ci kanamam ñu yëg ne moom kat yiw moo ko romb yiw wow romb ko loolu moo ko metti misaal kenn ci ñun tey war laa naqarlu man tey tey julliwuma ci mbooloo man de tey demuma julliwuma julliwuma ci mbooloo fajar dewuma jàkk fajar wala waxtu sàngam raw na ma wala bëccëgu sàngam day wooruma ko loolu ab jullit war na ko naqarlu min al xayri lazi kaana yaamuluhu war nga mettit lu yiw woo xam ne dangaa yaakaaroon ne dinga ko am lu baax loo yaakaaroon dinga ko am amoo ko nga naqarlu ko juróom-ñaareel mooy subutul kiramatil awliya kama tammali maryam fi mihrabihi nañu xam ne yàlla am na ay xaritam ay soppeem léeg-léeg soppeem yooyu def ay kiraama ay kiraama comme dox ci kaw géej comme dox ci jaww ji comme ñaan mu taw comme jël benn pot ndox bu ndaw nga ñaan ci mbooloo mi yëpp daal ciy naan comme ni Moussa jële woon yat wi dóor ci xeer wi fukki robinet ak ñaar daal ciy ball comme Moussa ni mu jële woon yat bi dóor ci géej gi géej gi xotteeku comme Isa ni mu doon dekkilee ak ni mu doon masaawee nit ñi seen kanam yi seen bët yi di dellusiwaat comme yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu ratte woon leketu soow mi ci ummu maabad ñëpp naan soow mi des voilà loolu mooy ay kiraamaat Mariama wone na ko ay kiraama yu mu am mooy ñëw nañ ci moom ñu fekk ci moom ay ci saison boo xam ne lekk yi waruñu fee am ñu fekk fa lekk yooyu biñ ko ne Mariama foo jëlee lii mu ne min indillahi maa ngi ko jëlee ci yàlla subhanahu wa taala kon subuutu kiramatil awliya islam saxal na ne wali yu yàlla yi dañuy wane ay kiraama ay kiraama mooy ay kiimtaan waaye loolu tamit war na leer ci ñun balaa ñuy tarxiis di dugg ci kiraamay seytaane parce que seytaane tamit day def ay kiraama moom ngay gis luxuskat yi di def ñii luxus kiraama yooyu lañ yor léegi léegi ñu jekki-jekki daan ne nii rek jox la 10 000 ne la ñuy jox la butéelu boisson wala ne nii yëkkati benn kurus nga gis di wir di nga gis ndox di tuuru ah wala ñu ne nii rek wala alal ju baree bari yooyu ay kiraama seytaane la waaye kiraama awliyaullahi am na aussi nañ ko bàyyi xel mbokk yi juróom-ñetteel mooy taqriiru nubuwatu muhammad aaya yi ñu war a jàng daf ñuy saxalal nekkug yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkug yonent ne yonent bi yonent la yàlla ko yónni is misla hadihi alqisas laa yu'ta li umiyin an yaqussuhu illa an yakuna rasulan nee na histoire yii alquran di nu nettali ñu koy gis di ko jàng di ko dégg gu dégg bëccëg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku nekkul ab yonent te jàngul waru waru koo mën a nettali waaye lan moo tax alquran nettali ñu yonent bi alayhi salaatu salaam nettali ñu histoire Adam histoire Nuux Muusa Ibrahima Isa nettali ñu mboolem yonent bu fi mës a jaar nettali ñu ay histoire yu xewoon ci àdduna wax ñu ay xabaar kon loolu lu muy tekki mooy dëgg-dëgg yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam yonent la yàllaa ko yónni ndax kan moom jàngul ba pare bëgg a ñëw di ñu wax lu nekk biir géej lu nekk kaw asamaan lu nekk ci biir montagne yi lan moo nekk ci suuf doomu aadama lan moo nekk ci moom naka la ko yàlla bindee ah yonent yi fi jaar mu ñuy nettali seeni histoire te jàngul kon su mu nee wax lool rek li muy tekki dëgg dëgg ne kon yonent la yàllaa ko tànn yónni ko kon aaya yi ñuy jàng léegi ci kanam dafa ñëw di saxal nekku yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yonent ndax ñëw na di ñu wax ay mbiru kumpa kumpa loo xam ne gisuñu ko xamuñu ko musuñu cee teg seen bët mu ñëw di ñu wax ne lu am la ndax yàlla subhanahu wa taala moo ko ne am na moo tax mu ne ñu am na loolu moo tax aaya bi ñuy jeex yàlla ne ko zalika min anbaa'il ghaib nuhihi ilayka lii day dafa bokk ci ay mbir yoo xam ne kumpa la man yàlla maa la ko nettali waaye yow fekke woo ko woon soo gisee tey nga mun koo wax nit ñi mooy man yàlla maa la ko dee kon juróom-ñetti tomb yooyu mbokk yi moom mooy fas yéene tey nekk sunu darsu tafsir insha allah subhanahu wa taala bu nu yàlla dimbalee fi ak tàkkusaan loolu moo fare fas yéene nekk sunu dars أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب sunu borom subhanahu wa taala ne inna allaha naka yàlla subhanahu wa taala moom rek moom moo am tur bi baatu allah moom rek moo ko tudd kenn amul tur bi ku dul moom mooy lafzul jalaala bi allah yàlla subhanahu wa taala moom yàlla istafa tànn na aadama aadam yonent bu tudd aadam adimul ard ki njëkk ci kaw suuf loolu mooy aadam mooy ki njëkk ci kaw suuf yàllaa ko tànn istafa aadama sunu borom subhanahu wa taala istafa aadam yàlla tànn na aadama kaana bil wahyi def ko premier nit bu mu defar ci loxoom kon Adama am na lu kenn amul de Adama am na lu kenn dootul am ba yowmal qiyaamat ba àdduna bi jeex kenn du ko am mooy lan moom yàllaa ko defar ci ay loxoom yàlla def ko mbindeef Adama bi ko yàlla di defar yàlla dafa yónni benn malaaka ne ko dama nga indil ma suuf ci juróom-ñaari gox yi yi nekk ci àddina bi malaaka bi mu ne cëpp bëgg a tibb suuf si suuf si ne ko bul tibb ci man luy mooy yàlla de bul tibb ci man loo xam ne yàlla bu ko defaree day mooy yàlla malaaka boobu dellu tibbul yàlla woo beneen malaaka bu tudd asrafil ne ko demal ci gox yi ci kaw suuf fu ne nga tibbal ma fa suuf indi malaaka bi ñëw bëgg a tibb suuf si ne ko ay yow malaaka bi bul tibb ci man loo xam ne bu ko yàlla defaree day mooy yàlla mu ne ko toppal fële man yàlla dina ma dina ma yónni may may delluwaat ay loxo kese daal di tibb ci juróom-ñaari gox yépp suuf mu daal di ñëw jox ko yàlla yàlla tuddee yàlla def ko malakal mawt def jox ko mbirum dee moo tax amul moom lu muy xool amul lu muy ragal amul lu muy rus amul lu muy tiit amul mun nañu wax ne waa ji de daa baax ndeysaan dafa baax kon de du ko rey yoonam nekk ci kooku waa ji de ponkal la ngand la dafa am doole ceinture noire la malakal mawti faalewu la kii colonel la faalewu la kii borom doole la malakal mawti faalewu la kii waliyu la faalewu la kii yonent la faalewu la kii sëriñ la yoonam nekk ci mu tibb yóbbul yàlla bu mu ñëwee yàlla ne ko yow dinaa la jox beneen liggéey dinaa la jox mbirum dee loolu moo tax ñu jox ko dee mooy malakal mawt ndeysaan yàlla subhanahu wa taala suuf soosu la jël daat ci defar aadama ci ban bis la woon ci bisu ajjuma ci tàkkusaan ci ngoon ci la yàlla bind aadama mu bàyyi ko mu tëdd mu wow ko ba mu wow koŋ di keleng-lengi soo ko fëggee nga dégg mu naan keng keng keng keng yàlla daal di jël ruu dugal ci guddaayu aadama ñaata la ah sittina zira ah sittina zira sittina zira 60 xasab la ci xasabu aadama yaatuwaay bi 7 mètres 7 zira guddaay bi 60 la Hmm. kooku ban mbubu la doon sol ñaata mètre ban lal la doon tëdd ah ban daal la doon sol guddaay bi 60 mètres 60 zira guddaay bi ci kaw yaatuwaay bi 7 zira bu verte bi ngay wës kon aadamaa ngi noonu yàlla subhanahu wa taala daal di koy def première nit wàcce ko ci kaw suuf moom aadam moo tax mu ne inna allaha yàlla istafa tànn la aadama aadama alayhi salaam yàlla def ko mu nekk yonent yàlla terale ko wahyu yàlla terale ko bi an xalaqahu bi yadihi yàllaa ko bind ci loxoom yàlla terale ko wa nafax wa nufixa fiihi ruux yàlla moo ci dugal ruux yàlla tere ko terale ko wa asjada lahul malaayika malaaka yi sujjootal ko taraa nga gën tërëy lii da xanaa yàlla defar la defarale loxoom ah ah yàlla yemul ci loolu mu ne malaaka yi mu dugal ci ruux yemul ci loolu mu ne malaaka yi sujjootal leen ko allahu akbar aadama bàyyi aadama yàlla mayaat ko xéewal mooy yéen ñëpp ci moom ngeen bàyyee ko kullukum min aadama wa aadama min turab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyee ko aadama moom mu ngi bàyyee ko ci suuf yàlla def malaaka yi sujjootal ko sunu boroom subhanahu wa taala daal di tànnaat yonent bu tudd nuux wa nuuxan waaye nuux mi ci doomi ci doomi aadama la ba ban nit ngeen gis bu bokkul ci aadama aadama am na Sénégal de ay nit yu bokkul ci aadama ndeysaan Sénégal Sénégal dañuy jaay nit ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu amay laaf di naaw loolu xale yi naan yow dañuy jaay nit ba mu jóg jógu beñe beñe xam ngeen beñe boo ko dugalee ci taal bi nu muy def fëriñ boo ko dugalee ci taal bi nu muy def day dëkk ci kaw xunki waaye après foofu lay yem Sénégal nag dañuy jaay nit ba mu funki comme beñe ni muy funkee xoolal nit koo xam dañ naan bokkul ci aadama non moom bokkul ci aadama bii ban aadama la bokk ñaata aadama moo am ci kaw suuf yàlla benn aadama rek la wax yàlla ginnaaw ba mu tànnee aadama ku mu ci teg nuux alayhi salaam nuuxan yàlla tànn na aadama mu nekk abul bashar bàyyu mbindeef yi ñépp moo leen jur mu daal ci teg nuux alayhi salaam yàlla tànn nu ci yónni ko mu nekk sayxul mursalin wa jaalahu abal bashar baada tuufaan yàlla def nuux mu nekk bàyyu mbindeef yi ginnaaw nuux mooy deuxième aadama nan la nuux nekkee deuxième aadama laaj la de bismillah waaw waaw aha waaw waaw waaw très bien ñooñu àndoon ak nuux Adama ah foofu la nuux nekkaatee abul bashar ñeneen ñëpp judduwaat ci nuux moomu leen génnee ba muy dem lan la yóbbaale ci nit fa ma amana lahu illa qalilan ñu tuuti la yóbbaale ñooñu ñoo juraat monde bi ginnaaw Adama alayhi salaam kon deuxième nuux mooy Adama ndax yàlla bi mu alagee àdduna boobu ñim bàyyi ñu dund mooy ñaandoon ak nu dong ca gaal ga ñoo dong ñoo dund ñëpp la rey tout bàyyiwul kenn tuufaan bi bàyyiwul kenn ñëpp a dee am na ñu jéemoon rëcc sax ne dañuy làqatu ci montagne yi am na ñu jéemoon waaye kenn rawul keroog keroog nee nañ yàlla bu doon yërëm benn jigéen rek lay yërëm ndax xale bu jigéen bi dafa yéeg ci xeer bi ndox mi topp ko parce que asamaan saa ngi génne ndox suuf saa ngi génne ndox nit ñaa ngi ci diggante ñaari ndox yi xale bu jigéen bi gis nit ñi di yéeg ci montagne yi mu dem yéeg ci xale ci montagne yi ndox mi di ball rek di ñëw bi ndox mi ñëwee ndeysaan bay fees xeer bi mu toog mu jóg taxaw ndox mi di ball rek ba egg ci oom yi ndox mi di ball ba egg ci ndigg li mu tekki doom ji mu bootoon daal di koy uuf ci ween yi ndox mi yéeg ba ci jumbax bi ndox mi yéeg ba ci dënn bi ndox mi yéeg ba ci baat bi mu daal di yëkkati xale bi ci kaw def ko nii liir bi moom bëgg na dee mais bëggul liir bi dee yàlla daal di koy jaxase moog liir beeg lépp sànni ko ci biir ndox mi waaw nee nañ keroog bu yàlla doon musal xale bu jigéen boobu dong lay musal ndax doom yooyu te yàlla musalu ko ñeneen ñëpp la alak bàyyil kenn même doomu nuux ak jabaram yàlla da leen a alak keroog bu fekkee yàlla alak na doomu nuux nag te nuux nekk yonent yàlla alak nu doomu nuux ak jabaram kon keneen kon keneen am na ku ñu fi bàyyi ah fu ñuy dóore doomu yonent ak jabaram bu fa doomu sëriñ bu jaamuloon yàlla teeyoon nu koy def waaye da ngay gis Sénégal yi ñu ne ah doomu diw la doomu diw ah kii kii kenn kii moom kii rek doomu diw na fekk mu jaamu yàlla de yàlla xamul diw de yàlla xam nga lu mu xam ku ko jaamu soo ko jaamoo soo ko jaamul xamula jabaru diw la da ngay gis benn femme bu xeesal ci télé bi xonk cur def bopp neen ñu naan pourtant jabaru diw la de kilifa gi mooy jabaru kilifa gi du ma fàtte mukk bi ma nekkee xale bu ndaw di jàng mu bokk ci benn daayira daayira bi ñu dem ci benn hôpital ñuy jox waa hôpital bi don dañ ñu laajoon ci daayira bi ñu ne bu ngeen ñëw na ngeen indi meew ak suukar ndax dañ koy jox malaati ñun ñëpp ñu indi ñu dajale ko nag léegi sëriñ bi ñëwul mu yónni jabaram man keroog laa mos a dem ci cérémonie yu mel noonu fi ñu toog ñu ne jabaru sëriñ bi léegi la ñuy waaye jox kàddu man maa ngi xool ci biir ci biir mbooloo jigéen ñi kan moo fi gën a ngand kaala kan moo fi gën a muuru kan moo fi gën a rëy yére loolu laa doon xool de billaahi wallahi taala ba jekki rek ñu won ma benn xale bu jigéen bu xeesal xonk cur meesu rose à lèvres épilé bët yi yar wey yi mu ne aouzu billahi min asheytaani rajim ma ne kii la ñu ne waaw ma ne ah daayira bi pare naa ci jabaru sëriñ kay wax dëgg yàlla suñ koy présenté wala mu war a jël kàddu ci mbisu mbirum lislaam wax dëgg yàlla waruñu faa yóbbu ko xeesal waruñu faa yóbbu ko meesu wala mu gere faasu wala mu capp-cappal kanam gi moom bu ñuy wax dañ war a dañu war a war a ku ragal yàlla ndax boroom këram dafa jiite nit ñi ci ci yàlla waaye loolu mooy sunu problème tey mooy bàyyi yeeg maam yi nañu nekk ñu baax doom yeeg soxna yeeg ñeneen nekk ci lu leen neex bu ñu waxee ñu ne seen baay la seen baay moo ko sañ wala ëllëg seen baay dina leen ñaanal yàlla loolu amul ci islaam bu amoon yàlla bàyyi doomu nuux yàlla bàyyi jabaru nuux jàngeen ci alquran su fekkee lii may wax du aaya alquran su ma liiree ba pare na ngeen na ngeen ne du aaya daraballaahu masalan kuy eggali lillazina kafaru imraata daraballaahu masalan ah imraata nuuhin wa imraata lut yàlla nee na maa ngi leen di jox misaal ñaari yonent yoo xam ne seen jab ñoom dañoo gëm yàlla waaye seen jabar yaa ngi safara ñaari yonent ñu ne kan ak kan la mu ne imraata nuuhin wa imraata luut jabaru nuuh ak luut kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihayni fa xaaratahuma ñoom ñaar dañoo nekkoon ci keppaaru sama ñaari jaam taxta abdayni ci keppaaru sama ñaari jaam ci sama jaam yi waaye fa xaanataahuma ñu trahir ñaari jaam yooyu yàlla nee na ñaari jaam yooyu dañuy baax baax falam yugniya anhuma min allahi shay mënuñoo jëriñ seen ñaari jabar yi yonent bu mun da jëbër jabar jabar jëriñ jabaram kon sëriñ nag waliyu nag cheikh nag muqaddam nag fekkee yonent yooyu mënuñu jëriñ seen njaboot kon nañ jaamu yàlla xoolal tey Sénégal dara taxul mu mel nii lu dul sëriñ si ñoo tax mu mel nii parce que ñoom ñoo yombalal nit ñi jaamu yàlla ñoom ñoo aljanna ñoo ko yombali nag ah ñoo leen yoral aljanna xoolal ñi dul woor tey ci dëkk bi ñaata lañ foo romb gis ay mbana café ay cinu café ñooñu boo leen nañu ne noonu ñun duñ woor te ñooñu assuré nañ àjjana de seen àjjana dafa assuré assuré nañ leen ko waaw leen ko assuré ñoom seen àjjana jox nañ leen clé yi ba pare clé yi seen loxo bu ñu dee rek dañuy ñëw rek seen appartement rek dugal caabi ji rek karaj karaj karaj mu ubbeeku ñu dugg ndeysaan li yonent bi amul woon mënul woon jox kele kenn kele aljanna sa loxo yonent bi mënu ko woon moom li nuux amul woon li aadama amul woon ab sénégalais am ko ab sénégalais yéen sénégalais yi foor ngeen ah tet tet yéen li benn yonent amul yéen yéen am ngeen ko allahu akbar waay sénégal bu fi yonent wàccoon wala kaaba gi nekk fi allah kon kenn du dégg ñun amuñu dara te kenn du dégg Sénégal amuñu dara dara dara te kenn du dégg wala lalalal guddi wala lal bëccëg wax ji bëri bay bëgg dee ñépp nekk àjjana kër gu nekk waa kër googu àjjana lañ jëm da nga koy dégg sax ci seen woy yi woy yi woy yi su ma neexoon baat léegi ma woyal leen woy yi waaye sama baat bi dafa naqari woy yi ñuy woy da ngay dégg woy yi ñu koy woy ne ñoom dugg nañu àjjina ba pare kër yëpp nag kër yëpp nag waaw kër yëpp kër yëpp ku nekk am nga woy boo xamante ne dugal nga say taalibe àjjana ay waay ndeysaan allahu akbar loolu yëpp lu ko waral rek mooy ñàkk jàng alxuraan waaye xam nga ne fu ñuy làppee jabaru nuu di fa làppe doomu nu di fa làppe jabaru luut ñu jàpp bàyyi ibrahima ca wàll ga dugal safara waaw waaye ma ni kon war nañoo jaamu yàlla xam ne dañuy nax suñu bopp inna allaha yàlla astafa tànn na aadama aadama wa nuuhan ak nuux wa ala ibrahim ak fami ibrahim alayhi salaam yàlla tànn na leen ñoom ñooñu def leen ay yonent bi irsaalihi yónni leen wa jaalahu abal basar baada nuux tuufaan yàlla tànn na nuux def ko bàyyi nit ñi ginnaaw aadama ginnaaw tuufaan ginnaaw ba yàlla alagee nit ñi yàlla tànn ala ibrahim bi an jaala nubuwata baada ibrahim fihim wa xatamahum gis nga ibrahima bi ko yàlla yónnee tànn ko yonent yi ñëwaat yépp ba àddina bi jeex ci ibrahima lañ bokk ñépp nag moo tax ñu tuddee Ibrahima bàyyi yonent yi ginnaaw nu yeneen yonent yi ñëwaat yépp Ibrahima mooy seen bàyyi moo tax bu ñu ne woon Yuusuf yonent bi ne doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax Yuusuf kuy papaam Yaaqub Yaaqub kuy papaam Isxaaq Isxaaq kuy papaam Ibrahim yonent boo jël rek ci Ibrahima ak lay lay ngay mbëkki jëlal keneen loo wiiri wiiri rek da ngay ñëw ci Ibrahim jëlal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima mooy maamam kan moo ko jur Ismaayil Ismaayil kan moo ko jur Ibrahim ginnaaw yonent yàlla Ibrahima yonent yëpp mooy seen baay amul kenn ku des nag yonent yëpp yëpp Ibrahima mooy seen baay mu ne loolu moo tax yàlla tànn njabootu Ibrahim bi an jaala nubuwa yàlla def ak yonent baada Ibrahim fiihim yàlla ginnaaw Ibrahima njabootu Ibrahima la teral def yonent bi yëpp ci moom mu jeexale ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne moo ci gën mooy seen sang wastafa ala imran yàlla tànn na njabootu imran wa minhum hanna wa maryam wa isa istafahum yàlla tànn na leen ñooñ ko waa kër googu muy ala imrana njabootu imran imran mooy maamu isa bu bu góor maamu isa bu jigéen num tudd hanna yàlla tànn na leen alal alamin ci seen niti jamono imran rajulun salihun waaju baax la woon min sulahaai bani israil ci nit ñu baax ñi bokk ci famille boobu ñu naan bani israil fi ahdihim ci seen jamono moom mooy jabaru mooy jëkkëru hanna waaw mooy baayu maryam alayhimu salaam yal na yàlla def ci ñoom jàmm kon yàlla tànn na ñi ñëpp gis ngeen yàlla li ñu doon wax sànq ne yàlla ay xéewalam moom moo ko moom ku ko neex mu def ko ku ko neex mu jox ko ñii amul lenn luñ jox yàlla ba yàlla tànn leen yàlla la neex rek mu daal di tànn ñii tànn aadama tànn nuux tànn ibrahim tànn ala imran alal alamin nit ñi li ñuy bari bari bari mbindeef yépp yàlla ne na ñii laa tànn moo ko neexa moo moo moo ko saña waaw loo ci mën lu ma ci mën lu ci keneen mën dara lu dul mu neex la rek su la naqare da mënoo dara yàlla ñii la tànn jeex na ay xéewalam moo ko yor ku ko neex mu dugal la ci ku ko neexul mu teg la fee ber la borom bi nee na zurriyatam baaduha min baad njaboot la lenn ci ñeneen ñi zurriyatan baaduha min baad yàlla tànn na njabootu ñenn ñi ci kaw ñenn ñi comme ni mu tànnee Isa def ko yonent yàlla jagleel ko mu juddu amul baay moom isa noonu la tànnee aadama mu juddu amul ndey amul baay amma isa yàlla utal ko ndey utal ko maam bu góor utal ko maam bu jigéen amma aadama nag amul ndey amul maam bu góor amul maam bu jigéen inna masala isa inda allahi ka masali aadam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun bu fekkee da ngeen di waaru ci isa yàlla nee na kay aadama moo jara waaru moo tax mu ne yéen ñi waaru ci isa te ngeen waaru ci aadama ndax isa moom dafa juddu am yaay wala aadama nag amul ndey amul baay yàllaa ko bind ci loxoom ne ko kun fa yakun mu daal di nekk aadama yàlla bàyyi ko muy nelaw ci bisu vendredi ci ngoon ci biir aljanna yàlla xar faaru gauche bi daal ciy génne Hawa la moo tax jigéen ñu bind ko ci faaru góor xanaa dëng keneen lu tax jigéen ñu bind ko ci faaru góor moom mottali góor aha faar faar bi fukk la bi juróom juróom-ñeent mooy bi ñu bindee Adama bi ñu bindee Hawa waa dama ne lu tax mu tax ñu bindee jigéen ci faar yenent bi nee na jigéen ci faar lañ ko bind te faar dafa dëng lu tax ñu bindee jigéen ci faar yàlla bu jëloon jigéen binde ko ci bopp kon jigéen day nekk ci boppu góor di fecc ci kawam nekk patron wu góor su yàlla jëloon jigéen bind ko ci suufu tànk góor kon jigéen day nekk jaamu jaamu góor yàlla jël jigéen bind ko ci sa faar faar fan la nekk ci yow ah faar fan la nekk ci yow ci sa wet ci sa côté mu ne dañoo bëgg sa soxna na nekk sa wet sa wet nga yërëm ko nga bëgg ko moo tax ñu indi ko ci sa côté suñ lay dénk daal dañ naan la teg nañ ko ci sa wet ndeysaan wala kenn indiwu ko ci bopp kenn indiwu ko ci tànk waaye ci sa wet lañ ko indi pour nga xam liñ la jox lan la kon jigéen ñi yàlla daf leen a bind teg leen seen wet ci yéen góor ñi bu leen leen sone bu leen mbëkk bu leen kil ok am na ci gaa yoo xam ne seen dépassé ay mbëkk la bul def loolu waay bul mbëkk jigéen kenn du ko mbëkk jigéen attanul mbëkk bul sone jigéen kenn du ko dóor ci kanam wa aashiruhunna bil maaruf yàlla nee na dund leen ak ñoom ci njekk moo tax ñu bind ko ci sa faar ci sa faar lañ ko génnee kon yàgg moom lu ngeen bokk am nga soxna yow yow mais fii bëri na ay SD ñi ñu am leen ay soxna yow ah ndeysaan gis nga kii mu am na yàlla nee na nañu dundandoo ak jigéen ñi ci njekk ci njekk wa asiruhunna bil maaruf njekk baatu njekk kan moom ko mën a firil njekk ah njekk oyof ak ah rafet ak lewet njekk daal xoolal lépp lu baax mooy njekk wa asiruhunna bil maaruf dund leen ak ñoom ci njekk mooy lépp lu baax même boo demee ba mënutoo koo yor yàlla mu ne na ngeen tàqalikoo tàqalikoo bu rafet fa imsaakum bi maaruf aw tasrihum bi ihsaan téel ci njëkk mënatuloo ko nga bàyyi bàyyi bu rafet mais sénégalais bu ñu bàyyi nu ñu bàyyee ay kurpañ dinaa la bàyyi de mais daa la dóor ba kii lay takk dina la fajaat xam nga loolu loolu du diini waxuñu la loolu ah tey bu ngeen demee tribunal ñaari dossier moo fa ëpp doole ñaari dossier ban ak ban miraas ak sëy ñaari dossiers yi ñoo ëpp dossier ci tribunal yi te loolu loolu la alxuraan traité alif laam mim fatiha ba suratul nas loolu alxuraan da koo wax ñaari mbir yooyu yàlla tegu ko sax ci loxo yonent bi yàlla moo ko leeralal boppam mooy mbirum xaalis ak mbirum jigéen yàlla dénk ko yonent bi yàlla moo ko leeralal boppam ci alxuraan terewul sénégalais yi loolu lañ gën a tële loolu lañ gën a tële dañ leen yàlla sàmm sunu borom ne subhanahu wa taala axbarahum axbara annahum zurriyatam baaduhum min baad yàlla xamal ñu ne ñenn ñi njabootu ñenn lañ ñii ñoo jur ñii ñii ñoo jur ñii ñii ay baay lañ ñii ay mag lañ ñii ay rakk lañ ñii ay sët lañ ñii ay jarbaat lañ ñii ay zurriyatan baaduha fawqa baad ay njaboot lañ ñenn ñi baaduhum min baad lam taxtalif aqaidahum seen pas-pas warta wuute walam tatabaayan fadailuhum wa kamalaatihim arruuxiya lidalika xafiza allahu taala lahum wa anaawiyatihi bihim sunu borom subhanahu wa taala ba mu defee loolu mu def ñii nekk njabootu ñii ñii nekki mag ñii nekki rak ñii nekki baay ñii nekki doom ñii nekki soxna mu ne wallaahu yàlla samiun aji dégg la alimun aji xam la moom yàlla tabaraka wa taala samiun yàlla nee na damay dégg de waaye alimun moom yàlla subhanahu wa taala boroom xam-xam la benn boroom xam-xam bu mag bu tudd Saïd Hawa rahimahullahu taala yal na yàlla sëmbërtal yërmandeem ak ay mayam ci kawam nee na moom sëriñ boobu su ngeen jàngee alxuraan aaye yi buy jeex ci aaye fu muy jeexee mu ne na ngeen bàyyi xel ci yàlla li muy jeexalee aaye bi sunu aaye bi tey jeex nii ci lan la ko yàlla jeexale wallahu yàlla samiun day dégg waaye alimun aji xam la buñ ne nit day dégg lan moo tax muy dégg dafa am ay nopp suñ ne ginaar gi day dégg dafa am nopp suñ ne xar mi day dégg dafa am nopp suñ ne xaj bi day dégg yàlla nag day dégg waaye bul jàpp ne dafa am nopp waaye mi ngi dégg sami bul xalaat loolu mukk ne daa am ay nopp ay nopp lay déggee yàlla nee na la damay dégg jàppal ne yàlla day dégg yamal foofu lu muy déggee sa yoon nekku ci xaw ma ko nu muy déggee sama yoon nekku ci fu muy déggee xaw ma ko bul fi nekk di taawil wala ngay kayfiya ngay melal wala ngay jéem a leeral ne yàlla ni muy déggee yàlla du nit mi ngi dégg fel day dégg wala du dégg fel xam ngeen fel day dégg wala du dégg day gis wala du gis day gis d'accord kay day dégg anay noppam anay bëtam pourtant day gis de xoola mu romb lépp romb basang bi bal sax ci basang bi la nëbbatu ba nga toog mu jaar ci sa yére dugg yéeg ñëw ba fi gën a nooy mu ñoppati kon kay mi ngi gis lu tax màttul lu tax màttul yére bi lu tax màttul mbubb mi mu bàyyi yooyu yëpp ñëw màtt la mi ngi gis waaw anay bëtam nag gis nga pourtant mi ngi gis sunu borom subhanahu wa taala buy wax ci yu mel noonu day gis day gis day dégg day dégg day wax day wax yemal foofu bu ñu la day wax mukk nga yaakaar ne gémmiñ comme sa gémmiñ bi nga am moom la am nga xam ne dañ koo xotti saxal ci tuñ def ci ay bëñ ah def ci làmmiñ def ci def ci yàlla day gis day gis waaye alimun yàlla aji xam la yàlla boroom xam-xam la de wala bu kenn bu kenn dem di wëri xam-xamu yàlla fenn xoolal sa bopp rek xoolal sa bopp wa fi anfusikum afala tubsirun lu tax du ngeen xool seen bopp xoolal ni la yàlla defaree xoolal sa tànk yi ni ko yàlla defaree tànk yi rek baaraami tànk yi tëstanu tànk bi tànk bi ni mu taxawee ba ci óom bi ba ñëw ci pooj bi ah nga continuer dem xoolal sa biir bi xoolal dënn bi xoolal ndigg li xoolal xoolal ba nga egg ci kaw kan moo mën a defar loolu ku mën a defar nit ndax am na ci société bi ku mën defar nit yaakaar naa gars yi li ñuy kan nasu kan nasu nag déggaguñ ku ne dañuy defar nit oto bu rafet mun na laa romb ñu ne lii diw société nangam waa ñoom nangam ñoo ko defar wala ah mën ngaa romb benn kër ñu ne diw moo ko tabax mën ngaa romb dara ñu ne diw moo ko defar waaye nit romb gu la ñu ne diw moo ko defar ah am na nag suñ am na góor gu ko waxoon ne mu ne man maa man maa defar diw maa créé diw am na benn góor gu ko waxoon mu ne maa créé diw diw moomu ne ko xanaa yow yaay yàlla nit na xool ni ko yàlla defaree xool ni ko yàlla defaree ni xool ni la yàlla defaree xoolal rek sa kanam gi yàlla def na fi ay ndox yoo xam ne bokkul ndox mi nekk ci nopp bokkul ak bi nekk ci bët bokkul ak bi nekk ci bakkan bokkul ak bi nekk ci gémmiñ te ñeenti place yi bu nekk am na ndox te ndox moomu fal force mu nekk fa su fa manqué nga uti ko wala wala te ndox yi benn nuróo ci ak moroomam gémmiñ bu amul woon ndox ndox moom nekk ci gémmiñ ñu tudd ah tuflit ndox mi nekk ci bakkan ndox mi nekk ci bët rangoñ bi leen di tënëg mooy ndox mi nekk ci nopp ñëw leen ana montre bi ndox mi nekk ci nopp nu tudd te xoola yii benn nuróowul te bu nee dafa am lu muy liggéey bi nekk ci nopp lu muy def day tere gunóor yeeg weñ ñi dugg ci ndax odeur bu garaaw lay génne lu ko jib day daw du dugg mukk ah gis nga su fekkoon ne tey nopp mii nii lu ñëw day dugg xoolal nga tëdd guddi lu ñëw rek day dugg waaye xoolal dara du dugg ci biir xoolal bët ndox mi ci nekk su ci nekk loon doo gis ah moo koy raxas ba pare mooy tax bët bi di di tourner xef bi di dem di ñëwaat parce que ndox mi moo ci nekk fi mu nekk bu ci nekkul woon rek boo xëyee jëndi tuufaay boo ko remplacer ñu la ko ci toqal bi nekk fii moo tax booy nooyi doo ko yëg nekk ñun ñu toog ñoom ñu ngi nooyi mais kenn déggu bu ci amoon foto na di uti maynte la toog di solu da ngay gis nga nooyi nooy ngay nooyi nooyi bu métti yëf yi bu fattee bi nekk ci gémmiñ nag wala fi mu nekk booy lekk yàlla day ubbi robinet yi nekk ci gémmiñ ñoom ñoom ñuy sotti lekk bi lekk bi di tooy machine bi di yëy su fekkoon ne amul ci gémmiñ ndox muy tooyal lekk bi da ngay lekk ba sonn te du mokk mais lekk bi li muy tooy moo tax bëñ yi di ko mën a yëy di ko daggati kan moo def loolu kon yàlla borom xam-xam la nañ yem ci boobu rek sunu borom du sunu morom nga xool asamaan ni ko yàlla bindee nga xool suuf nga xool jant bi jant bi ñaata at mu ngi tàkk boobu ba léegi yéen ñi jàng tubaab dégg naa ñu koy calculer dégg naa ñu jàng tubaab di calculer naan jànkat bi am na xawma len ay ku leen ko wax yéen ngeen fekk ko fi naan 15 milliards dëgër fit rek dëgër fit fees paasewul nga naan da ngay wax jant bi ñaata at la am ku dem ne sa papa waaw papa jant bi ñaata daal tey da ñëwoo yow nga ni lan doom fi laa ko fekk moom tam bu ko laajoon maamam papam papam danaan ko fi laa ko fekk bu ko laajoon maamam danaan ko fi laa ko fekk kon loolu noo xamee ne ñaata fi at la am fii nga ko fekk nga naan da ngay wax ñaata at la am suuf si fii nga ko fekk xoolal xoolal xoolal waajooju di wax di wax suuf ñaata pepp la dëgër fit soo ko nee gi waaw soo ko nee géej mu ne ñaata paan la xaw ma ñaata ndox ñaata litre ah sénégalais moo dëgër fit géej ñaata litre la géej suuf si ñaata la ah nit ñi sax nit ñi sax gars yi dañuy jéem wax nit ñi ñaata lañ danañ ñu ne la addina bi nangami milliards la ñaa 7 milliards loolu la ñuy wax de xam ngeen nit ñi ëpp nañ 7 milliards ah environ dañuy dañuy natt quoi waaw looloo gën nañ ci baat wala nit ñëpp nañ loolu Sénégal rek boo waxee ñu naan la ay 12 millions Sénégal ëpp nañ 12 millions xam ngeen ne gars yi fii booy natt booy booy natt fii nga dugg benn kër nga fekk fa 30 personnes nga ni maire bi doo ñëw doo ko mën a wax sax ñaata doom nga am da ngaa ko ñaata bant la la yàlla rey mu ne la juróom-ñaar la am ñeneen ñëpp mun a bëleen Sénégalais ñi ma ko wax ñaata doom nga am wala ñu ne xalima maam yàlla ay bant ñun du ñu ay bant la wala yéen ay bant ngeen dañ yaakaar ne boo waxee loolu da ngay catu nit ki moo tax boo koy wax doom da nga naan ko ñaata bant nga amagum mu ne la am naa ñaari bant wala am naa ñetti bant sénégalais yi sax bu ñuy am doom bu ñu demee ci hôpital hôpitaux yi ñu ne femme bi yow ñaata doom nga am bu ne fukk dañu naan ko yow xanaa da nga dof yii ban mën nga nekk fukki doom foo ko jëmee xool foo ko jëmee ñu commencé ne xool dañ lay jege pour nga planning planning waaw pour lan pour nit ñi bu ñu judd waaye dañuy sonal seen bopp yàlla bi mu bindee àdduna bi ba pare dafa jël benn xalimaam mu dem ci lawhul mahfuz mu bind mu ne àddina bi tant personne ñoo fiy nekk jamono ju nekk tant nit moo fiy nekk waxtu wu nekk tant moo fiy nekk mu bind ko fëy boobu wow na bu yàgg xalima googu yàlla yëkkati na ko bu yàgg bu ñu naanee ay piril bu ñu indee ay capote bu ñu opéré xoolal benn jigéen day am doom léegi da ngay dem hôpital nga yéex a am doom ay minute rek ñu opéré la opération bi xam ngeen est-ce que sabab bi lan la mooy planning familial bi lañ bëgg a continuer mooy suñ la opéré tey nga toogaat ay at nga ñëwaat am doom ñu opéré waat nga toogaat ay at nga ñëw di am doom ñu opéré waat la c'est terminé sa troisième opération bi sax c'est risqué moo tax boo amee deux rek ñu ne la ah yaa ngi ci danger booy amaat doom di dee ah buñ la waxee loolu nooy def da nga naan leen wëlbatil leen ma waaw léegi da nga naan leen wëlbatil leen ma sama butitu njurukaay ñu wëlbati ko te ñoom ñoo ko tey mën nañ laa bàyyi nga toog foofu nga am doom mais dañ naan dafa yéex dañuy ñëw rek opéré hop waaw césarienne loolu moo ko waral pour planning familial bi la mais duñ ko wax moo tax ñii médecins yi wax ci problème familial ay criminel lañ bu doon état islamique la dañ leen war a atte rey leen parce que ay reykatu nit lañ parce que dañuy opérer femme yi te opération bi jotut jigéen mën na xëy suba ba ngoon nekk ci mat parce que mat waxtu la saa yu yàlla ne doom ji ci lay génn ci lay génn su fekkee nag femme bi dafa dem dem dem ba tële ñu xam ne bakkanam mu ngi ci xottu gerte mu ngi ci danger la nañ ko opérer mais lay téeméeri jigéen yu am doom yu nekk 90 pour cent yi dañ leen di opérer te jigéen bu ñu la opérer benn yoon ñaar pare nga te jigéen mën nañ ko bàyyi mu am fukki doom xanaa xam ne jigéen mën na am fukki doom xam ngeen Michael Jackson ku ko fi am ku ko fi am yaayam ñaar doom la am Michael Jackson yaayam ñaar doom la am ñaata la ñooñu nekk ci pojum bi di wu yëpp ay doomam lañ daa jur ba ëppal diis fii Sénégal di nga gis maire bu am fukki doom 16 gis nga te te maire boobu ye mu ngi dund ba léegi dara dalu ko ñu naan jur day daaj ji jigéen boo déggee télé yi ni ñu koy waxee jur bu bari day rey nit day rey jigéen ah la xawla wala quwwata illa billah fukki doom ak juróom benn yow xanaa yow ginaar nga xanaa muus nga waaw yooyu lañ lay wax baat yooyu ba pare dañuy dessiner ci ay tableau wala ñu théâtre ko waa ji ndeysaan day am jabar jabar ji ëmb di nàmpal uuf boot jàpp ci loxo ndeyjoor jàpp ci loxo càmmoñ ay grand yi taxaw nee duñ yem ci loolu de dañuy wane ñu mag ñi di xeex ñu xaw a ndaw ñi di xëccoo mburu ñii di jooy fii ñii tëdd feebar ndaw saa ngi ëmb mi ngi nàmpal mi ngi boot mi ngi fab fii mi ngi fab fii papa jaa ngi fab ñu ne xool na ñii ni ñu sonnee ñu wane beneen tableau bi benn kër gu rafet matériel yu rafet oto bu luxe benn jabar benn doom ak papa ji ñu nekk seen olala ñu ne xoolal xoolal ñi ñu ngi dund ak xoolal ñi ñi ñoo sonnal société bi su ko defee bu la wanee loolu yow fooy bëgg a bokk yow mi amagul jabar fooy bëgg a bokk ñaari kër yooyu mën kër ngay jël du ngeen wax yéen tamit nag léegi sa dund yëpp mooy lii ngay reewee quoi du ñu yem ci loolu du ñu yem def ko ci ay ay nataal nit ñi di ko seetaan ci pono publicité yi mais dañ koy defaat théâtre di ko waxtaanee su ko defee ñëpp bañ lool bañ ja- bañ ay jabar yu bari bañ ay doom yu bari boo waxee sax ñu ne la doom yu bari baaxul ndax doo leen mën a yar gis naa ci télé bu tudd Walfajiri benn débat bu ci am ci mbirum taalibe yi mooy jamono yooyu ñuy xeex taalibe yi ñu woo benn xale bu jigéen bi mu ñëwee di défendre taalibe yi dañ leen war a tere yalwaan muy défendre loolu bi mu demee bay jeexal ñu ne ko sa kàddu gu mujj mu ne lii lépp jafe-jafe yi Sénégal am yépp xam ngeen lu ko waral gaa yi ne ko déedéet mu ne mu ne takk jabar yu bari xanaa takk ñaar takk ñett takk ñeent nee na loolu moo ko fi indi nee na bu ñu arrêté woon loolu rek kon société bi du am problème mooy dàq ginaar wax sa soxla waxaale sa soxla est-ce que addina bi Sénégal dong ñoo fi am ñaari jabar ñetti jabar ñeenti jabar ah est-ce que addina bi ñun ñoo fi ëpp ah ñun kay dañoo war a ku nekk def li nga mën ku nekk la nga tollool nga yem ci ku nekk doom ya nga am ngay góorgóorlu ci yar leen jàngal leen former leen loolu mooy wax ji waaye bu fekkee yow soo amee ay doom doo leen toppatoo doo leen yar doo leen jàngal doo leen doo leen kon société boobu bu amee problème bu ñu ko jël di ko teg l'islam tey bokk na sénégalais yi tooñ gi ñu tooñ l'islam mooy nit ñi duñu leen jàngal l'islam nit ñi xamaluñu leen l'islam yaruñu leen ci l'islam te lu leen dal ñu ne l'islam la loolu tooñ la tooñ bu rëy lañ tooñ l'islam ci Sénégal nit ñi xamaluñ leen l'islam jàngaluñ leen l'islam dund loolu leen ko àttewuñ leen ci ba pare lu am ñu ñu ñu yóbbu ko ci yàlla yóbbu ko ci l'islam benn xale bu jigéen bu jógee riche ñëw univers université Cheikh Anta Diop di def formation mu dëkk mu ñëw dëkk banlieue bu xëyee di liggéey di dem université day romb nit ñi toog ci grand place yi maanaam li muy romb nit ñi toog daal dañoo bari ci garab yi ñi ci grand place yi ñi ci damier yi ñi ci place ndékkikaay yi ñëpp toog mu dem université rek mu ne mu ne benn mbokk bu mu fa fekk mu ne ko mais seen meneel man daal islam jaaxal na ma quoi islam nit ñi duñu liggéey l'islam daal day tardeel société waa ji ne ko lu tax nga wax loolu mu ne xoolal fii kenn du liggéey ñëpp a toog mu ne ko fi nga nekk am nay jullit dëkk bi nga jógee am nay jullit mu ne waaw am nay jullit kay mu ne dañoo bëri wala dañoo tuuti mu ne dañoo bëri mu ne ñooñu est-ce que bu ñu xëyee dañuy toog mu ne déedéet mu ne waaw kon lu tax nga ne nga nga ko nga bugg a tooñ l'islam wala kooku noonu la ko tontoo kon ndeke xëy toog bañ a defi dara du l'islam bañ a liggéey du l'islam xoolal yonent lan la wax ci loxo yuy liggéey waaw waaw waaw kon chaîne yaa ngi foofu amul jox la paas su ko defee ñu góorgóorlu xam ne dafa am yoo xam ne feek duñ ci xippi suñu bët duñ ci duut baaraam rek dañoo nar a tardé dañoo nar a lor suñu bopp suñu borom mu ne subhanahu wa taala wa iz fàttalikul iz fàttalikul qaalat bu mu waxee imraatu imran soxna imran jabaru imran lan la wax imran mooy imran mooy maamu isa bu góor lan la wax mu ne rabbi yow sama boroom inni man nazartu laka yéene naa la jox naa la maa fi batni li ma nekk sama biir bi li ma ëmb jox naa la ko muharraran dama la kaa jagleel xaalisan mu set wicc laa shirkata fii kenn du ko bokkaaleeg lenn man duma ko liggéeyloo keneen du ko sant lenn yow rek yow yàlla yaa ko moom imraatu imran moom mooy xanna bintu maquuda maata zawjaha wa hiya hubla ndaw si baayam mu ngi tudd maaxuuda moom ndaw si bi borom këram di faatu daf ko fekk moo ngi ëmb bàyyi kook doom kon lan nga ci dégg mooy xanna bi muy ëmb Mariama dafa fekk Imran daal di gaañu yi- bàyyi Mariam nee na baay ji daf ko bàyyi ak ëmb daal di faatu léegi moom ndaw si comme dafa ëmb te borom këram faatu na mu daal di ñaan yàlla mu ne yàlla inni man mii day nazartu laka jox naa la alzamtu nafsaha alzamat nafsaha an taj'alahu lillah yow yàlla lii ci sama biir bi lii ma ëmb nii jox naa la ko mu lay jaamu di la liggéeyloo ci sa néeg bi mooy baytul maqdis mooy jàkka ji ngeen di gis tey Jérusalem te yahud yi nangu ko jàkka jooju la Mariama ah, la Hanna daal di yéene doomam ji mu nekk fa benn serviteuse benn liggéeykat boo xam ne day jaamu yàlla foofu ci biir jàkka jooju bi mu waxee loolu moom ndaw si ne jox na yàlla li ci biiram du bokkaaleeg doom jooju kenn bi haysu la tantafiu bihi ahad doom jooju kenn du ko jëriñoo ku dul yàlla wax naa leen sànq bi ñuy commencé das ma ni leen ne dagan na nit daal di nësëral yàlla dara nësër mooy lan mooy nga teg benn far benn mbir ci sa kaw fekk nekkuloon farata nga chargé wu ko su ko defee léegi mu nekk farata ci sa kaw ndaw si bi mu nee yàlla jox naa la sama doom ji yow rek léegi farata la doom ji dootul liggéeyal kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala fekk dafa ëmboon moom ndaw si Hanna waaye ba mu ëmbee xamul woon ne li mu ëmb jigéen la moom dafa yaakaaroon ne doom bu góor la ndax góor moo mën a liggéey yenn liggéey yi moo tax boo amee liggéey bu bëri tey boo amoon benn R plus 4 nga bëgg ku la koy baleel chaque jour di la ko raxasal nit ñi lan lañ lay wax dal góor parce que jigéen mënul loolu day gaaw a sonn bi mu ëmbee nag mu ne yàlla jox naa la doom ji pour muy liggéeyal jàkka ji ci di ko bale di ko raxas di ko cuuraay waaye di jaamu yàlla ci jàkka ji dafa jàppoon ne moom doom bu góor la ëmb ndeke doom ji jigéen la ndeysaan mu ne yow yàlla jox naa la li nekk sama biir bi maa fii bat nii muharraran jox naa la ko mu set wicc xaalisan yow yàlla fa taqabbal minni yow yàlla yal nag ma nangul innaka yow yàlla anta yow assami yaay aji dégg ji alalim yaay aji xam ji ndeysaan dafa dañoo sunnaal sooy ñaan yàlla nga ñaan ko ci asmaullahi alxusna booy tàmbali ak booy jeexal sooy ñaan doo jékki-jékki rek ñu ne la ñaanal rek nga ne allahumma wala rabbana déedéet da ngay tàmbali ci tàgg yàlla bakk ko kañ ko ya allah ya rahman ya rahim wala nga jàng fatiha wala subhanaka allahumma wa bihamdika da ngay tàgg yàlla boo tàggee ba pare nga doog a ñaan boo ñaanee li ngay ñaan bu fekkee wërsëg la nga jeexale ko ci turu yàlla bi muy wax wërsëg bu dee yërmande la nga jeexale ko ci turu yàlla bi muy wax yërmande bu dee xam-xam la nga jeexale ko ci turu yàlla bi muy wax xam-xam di ngeen ah nga jeexale ko ci aljanna bu dee xam-xam boo ñaanee ba pare looy wax innaka antal alimul hakim bu dee yërmande la nga ni yaa arhamar rahimin innaka anta tawaabul ghafuur bu dee yërmande bu dee wërsëg nga jeexale ko ci turam bi muy wax wërsëg allahu latifun bi ibadihi yarzuqu gis nga chaque jour booy ñaan da ngay xam règle yi ñaan yoon wi ngay jaar ba ñaan pour sa ñaan nangu pour yàlla di la may waaye bu fekkee xamoo yoon yi da ngay tëñëx tëñëxi rek li ci ëpp sa ñaan du dem fenn parce que ni nga ñaanee moo baaxul kon loolu tamit dañ ko war a xam mu ne innaka yow yàlla gis nga mu ne fa taqabbal minni yow yàlla yàlla na nga nangu sama ñaan innaka yow anta tawkiid la yow rek as-sami yaay aji dégg ji al alim yaay aji xam ji mu ne fa lamma ba nga xamante ne wadaataha jur na doom jooju mu teg ko mu jur ko qaalat mu ne moom ndaw si rabbi sama boroom inni man wadaatuha jur naa ko teg naa ko waaye unsa jigéen la allahu akbar waay waay waay waay jur naa xale bi de waaye jigéen la loolu lan la lay jàngal moom lan la wax foofu mooy góor laa bëggoon waaye jigéen laa am ndeysaan mu naqarlu ko parce que góor la bëggoon li mu yéene woon boroomam mooy doom ju góor jàmbaar ju liggéeyal yàlla ndeysaan ndeke nag jigéen la jur moo tax mu ne fa lamma wadaatha ba mu ko tegee jur ko qaalat wax na moom ndaw si rabbi sama boroom inni man wadaatuha jur naa ko teg ko waaye moom day unsa ndeke jigéen oh lii nag waxuñu jigéen daa bonde da ngay gis léegi ci réew mi ku ñu ne am nga doom bu jigéen oh oh mu commencé découragé lan la am ñu ne jigéen mu ne oh loolu kenn du ko def wala fi dañuy wax ne ñaari tubéy mooy takk tubéy waaye ñaari tubéy ñaari loxo mooy takk waaye ñaari loxo mooy takk am na fi ñu bare bari seen doom yu jigéen ñoo leen di dimbali kon ndaw si dafa wax lii ci wàllu liggéey li mu bëggoon dëgg-dëgg góor moo ko mën mais tekkiwul ne jigéen bon na ndeke moom dafa am lu mu bëgg programmer ko yàlla am lu mu bëgg programmer ko moom dafa programmer doom ju góor juy liggéeyal yàlla yàlla programmer jigéen ju baax ju war a jur góor gu baax googu moo tax bi mu waxee wax ji ba pare sunu borom nag léegi di ko tontu mu ne wallaahu yàlla alamu moo gën a xam bi ma wadaat li mu jur yàlla nee na maa ko gën a xam li mu jur waaw yàlla moom xamoon na ne kii jigéen la ba mu ba mu ko ëmbee ci azal parce que yàlla moo programmé kii moo war a jur kii kii moo war a jur kii kii moo war a jur Mariama Mariama moo war a jur Isa kon que yàlla xamoon na ne kii jigéen lay jur waaye moom xamul loolu moo lay wan ne kumpa yàlla rek moo ko xam moo tax bi mu waxee wax ji ne yàlla man de jur naa ko waaye jigéen la lan moo tax mu ne waaye jigéen la parce que góor la bëggoon ndax li mu bëgg ci liggéey góor a ko mën yàlla nag ne ko wallahu yàlla aalamu moo gën a xam bi ma wadaat ci li ndaw si jur walaysa zakaru kal unsa góor ak jigéen tolloowuñu yemuñu gis ngeen yéen ñi gëm parité aaya baa ngi noonu ana waa parité yàlla nee na walaysa zakaru kal unsa xadafi xam ngeen xadafi jigéen ñi ba ñu déggee tubaab yi di wax parité parité libyen yi ci jamonoom boobu deewagul jigéen ñi ne dañuy indi parité libi mu ne leen d'accord naa waaye ku ci ëmb toll ci sa neuf mois dinaa la sóoloo para ni góor ñi di sóowe para dinaa leen sóowe para noonu sama yoon nekk ci nag yéen ne da ngeen di tolloo kon góor ñi bu ñuy soopaara di ngeen soopaara ñi ëmb di war a jur sax danaa leen sooloo daay na waa kon nag góor ak jigéen du ñu benn mbokk yi walaysa zakaru kal unsa yàlla li mu wax mooy dëgg góor ak jigéen yemuñ même bu ñu doon xeex fii léegi léegi rek nit ñi bu ñëwee dañ naan ko góor ki mais yow yow tamit wala ah lu tax nit ñi dem ci ko góor ki naan ko yow tamit ah ah ah jigéen bi la ñuy jox dëgg parce que jigéen bi amul doole loolu moo tax soo xeexee góor jigéen sax nit ñi dañuy ñëw ci yow la ñu ne yow tamit nag waaw yow da yow daa amoo benn personnalité quoi yow jigéen ngay waxal non yow tamit gis nga nit ñi dañu ko di dal sa kaw parce que jigéen la parce que jigéen moo moom la yàlla binde amul doole du question ne yàlla da kaa xeeb déedéet moom dafa am lu ko yàlla binde am lu ko yàlla liggéeyloo soxla ko moo tax yàlla jox ko loolu bi mu néewee doole yàlla jox ko loolu waaye bu jigéen nekk fii di alteeru di yëkkati ay weñ naan day bëre di nekk ay maçon liggéey yooyu liggéey góor la xam nga jigéen lu ñu ko sant toogal ci kër gi sangul ba set toiletul puudarul parfumul góor jox la nga lekk nga naan ah loolu tax dëkk bi dëgër de parce que lu góor war a liggéey yëpp ñu dem jox ko jigéen ñi te jigéen ñi mënuñu ko am mënuñu ci dara tous lañ mënul donc xam nga tali bale tali yi bu gisee jigéen yor bali bale benn bale dem toogaat tuuti ñëwaat taw boo ko defee sama càmm yi ñoom may bu fukki dara ma ñëw ndox mu sedd ma toog kër ga liggéey gis nga soo waxee ñu ne dañoo war a liggéey kenn war terewoo liggéey mais dafa am liggéey lu leen islam jox lu mel ne sage-femme lu mel ne ñaw lu mel ne rab kër yooyu la islam jox góor jigéen mais liggéey yeneen yi jox ko góor keroog dama gis ci tali bi ay jigéenu mécanicien naan dañuy yëkkati moteur di jéem a ni waaw jigéen lu nekk jigéen ñi bëgg cee dugg soo demee ci armée bi Abdoulaye Wade moom man na ko yàlla jubal te yërëm ko jël jigéen ñëpp dugal ci armée bi loolu yàq la loolu yàq la góor ñaa ngi nii Sénégal góor xale yu góor yi langar langari fii ñu leen dugal ci armée bi jigéen ñu li fewuti loolu ñu leen di ëmbal rek genn wàll gi ëmb nañu genn wàll gi ñu dugaloon quartier yëpp ëmb nañu te ku ëmb dañ lay dañ lay dàq yàlla moo wax dëgg xam ngeen militaire yi ni ñuy dundee seen biir bu leen jigéen raxee musiba dal ko xam ngeen li ma wax bu leen jigéen raxee musiba dal ko jigéen mënul nekk ci situation boobu di ko dund loolu jigu jiguñu tubaab yi ñoom bu ñu ko defee seen bopp la mais ñun loolu ay jullit lañ ñun mënuñu loolu beneen bi mooy bala ñuy jël jigéen di ko def loo yenn yooyu te góor ñi nekk fi mat sëkk ngeen defe ne tali yii ñi koy bale ah koñ bu nekk bu ñu jëloon góor ñi fa dëkk am na xale yu góor xam dañuy dañuy dañuy xëdd rek tëdd di nelaw ba ngoon jot ñu sangu ndogu amuñ dara ñooñu kay mën nañu liggéey loolu mais tubaab yi ñoo yor dundin boo xam ne lu yàlla wax nii la ñu ne déedéet xoolal ñan la yàlla waxoon ñoo war a ñoo war a sëy góor ak jigéen ñu ne mukk mukk mukk mukk góor ak góor léegi dañuy sëy jigéen ak jigéen dañuy sëy xoolal xoolal fi ñu yóbbu àdduna bi lu yàlla ne lii la ñu ne déedéet wala leneen li mën naa am yéen seen diggante yàlla mais yàlla bi mu naan góor ak jigéen nañu sëy dafa am lu mu ci bëggoon mooy lan mooy nit des ci kaw suuf sëy boobu ngeen mën ci am bànneex ngeen mën ci am doom yéen ñaar doom jooju màgg jëriñ leen waaye ñaari góor bu ñuy sëy nañ am doom ah ñaari jigéen bu ñuy sëy ñu ngi nii lan lay indi mooy feebar salte mu ngi nii loolu moo fi ñëw sida bi ñuy wax fu mu jóge kon yàlla li mu wax mooy dëgg yàlla saa yi waxee nii la ñu ne du noonu problème day ñëw yàlla dafa dogal lu am laaf moom day naaw rek wala lu amul tànk amuli laaf nu muy def day watatu wala lu am ay tànk day ki am tànk bu dee damay naaw bismillah nañ essayé yéen ñëpp bu tafsir bi jeexee bu ngeen ñibbi naaw leen wallahi bu ngeen yeggee seen kër di ngeen ndogu te weer bi jotagut parce que da ngeen bëgg a wàcc yoon wi leen yàlla jaaralal mooy da ngeen di dox kii naaw bu ne man du ma naaw problème day am ku nekk li la yàlla defal loolu la yàlla moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir kon yàlla bu ne walay sa zakaru kal unsa góor ak jigéen yemuñu xam ngeen ne dëgg la tey nañ organiser benn combat ñu ne góor ak jigéen ñoo koy bëre ñu nge- ñu ñu ruumal leen ci biir terrain bi ku góor ki fu mu lu muy def ku jigéen gi da koy rey ñu ne ko dóor dóor yu miiti te su boobaa nit ñi lu ñuy wax ñu organiser combat boobu dañ leen di porte plainte dañ leen di yóbbu tribunal lan parce que nee nañ dañ ne yow xam nga li nga def yow yaa ko tey yow xam nga ne góor ak jigéen yemuñu ba pare ngay organiser combat boobu te te nee na nañ yem kon kay dëgg-dëgg waroon naa mën a nekk yàlla dafa yemale góor ak jigéen ci jaamu yàlla yi li rijaali nasibun mimma ktasabu wa li nisaai nasibun mimma ktasabna gis nga ci wàllu jaamu yàlla julli bu góor jullee mbaa mu woor jigéen julli woor wala saraxe wala aji màkka ñoom ñoo yem képp tiyaaba ngëneel gi yàlla di wax góor ak jigéen du ci affaire jaamu yàlla ci wàllu liggéey yii la ci wàllu àddina yooyu la yàlla di wax mais du ci ngëneelu yaa maa maa la gën deret ak yaa ma gën deret wala nangam nangam yow yaa déedéet kon foog ñu xam tubaab yi fu ñu bëgg a yóbbu te ñoom parité boobu ñuy wax yëpp du dëgg de tubaab bu amee jabar nan la ñuy woowee jabar yi hmm? tubaab bu amee jabar jabar ji nan lay tudd madame lan ah madame kanal madame ba pourquoi pas pourquoi madame ba dañuy dindi dindi turam daal lay jox pourquoi kon nga xam ne yemu leen ah waaw est-ce que ñu ne yéen a yem est-ce que dañu ne monsieur Diop yow bu ñu lay wax dañ naan la monsieur Ba sa jabar bu ñu koy wax ñu ne ko madame Ba lu tax jëluñu sa sant jox ci jigéen bi ah tubaab wala loolu may wax ne du tubaab loolu ñan ñoo ko fi indi madame Ba ku ko fi indi waaw loolu mooy shaqiq xam nga islam nan la tuddee jigéen li islam dane jigéen ŋàdd la góor ŋàdd la xam ngeen ŋàdd comme guro bu ñu la ko joxee nga xar ko ci digg bi maanaam boo bëggee guro bi mat nooy def da nga leen di boole moo tax yàlla wax naa leen sànq yàlla bi muy bind jigéen mu daal di koy bind ci faar pour mu tolloog moom nekkul ci suufam kon day nekk jaamam nekkul ci kawam kon da koy tiim auteur nekk sangam waaye yàlla def ko ci sa wet pour mu lay jàppale góor yàlla dafa def jigéen pour jigéen di ko jàppale nekk ci wetam mooy di ko mottali di ko defal lim mënul fi mu nekk nii loo nekk góor nekk ponkal nekk ngand am alal am na loo mënul boo wàccoon sa kër léegi sa doom bi commencé jooy liir bi looy wax looy wax yaayam déedéet des na ah des na des na de de kaay nax sa e kañ sa doom ji waayow ah yow du sa doom pourtant yow jël nga ko o o wiiri fële kër kër xale yu ko rek fekkee yaayam da dem marché yaayam da daan teg lekkat bi ne ko cëpp rek xale bi noppi pourtant yow def nga ci une heure de temps mënoo dara li ngay nekk ponkal yëpp yaa ngi ni mënoon na xale mënoo parce que kii moom la yàlla jox loolu liggéeyam la loolu moo tax yàlla bind ko moo tax ci ay seconde yu ndaw lay jël xale bi nii rek xale bi commencé ree yow yaa ngi fi depuis suba mënoo ci dara yenn saa yi sax nga jël biberon bi lu tax xale bi noppi puisque yàlla subhanahu wa taala yi liggéey boobu ñoom la ko jox kon chaque jour nañu bàyyi xel tubaab yi liñ ñuy indil ak di ñu ko wax lu ci bari ñoom ci seen bopp gëmuñu ko du dëgg démocratie bi ñuy wax ni tubaab yi gëmuñu ko démocratie bi kañ lay valable bu nekkee ci ñoom bu dee ci ñun jullit yi du dëgg valable Égypte ngi nii tey ñu ngi rey ñu ngi rey nit ñi président bi kañ lañ ko fal matul sax un mois ñaata weer la pro- président bi toog ah ah voilà 11 mois 11 mois et quelque te 11 mois yëpp ñoom ñoo yàq li muy liggéey ndeke dañuy préparé parce que xam nañ ne président islamiste arrangé wul Égypte arrangé wul Égypte foog ñu yàqal ko liggéeyam parce que arrangé wul Israël parce que Israël Palestine léegi day am day am arrière day am buntu arrière su ko Israël di dóor day am fu muy dellu pour mën a ñëwaat léegi foog ñu indi ñoo xam ne bu ñuy dóor Palestine Palestine bu ñu bëggee daw dañuy tëj buntu bi ñee dóor ba doyal rey li ñu war a rey dem ñibbiwaat te loolu Égypte bu fa Mursi nekkee loolu kenn du ko seetaan parce que duñ nangu mukk ñuy rey ay julit ay julit di tëj seen buntu kër naan kenn du fi dugg bu fi kenn dugg de loolu la Moubarak daan def bu Israël di rey waa Palestine mu jël armée bi yóbbu leen ci frontière bi nag bu kenn dugg tëj leen lépp loolu du diine ñun suñu diine lu mu ñu jàngal mooy lan innamal mu'minuuna ixwa al muslim man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minhum ku yitte woowul mbiru jullit ñi bokkoo ci jullit yi xam nga tey ñun ñu ngi fii di tafsir nekk ci ay jàkk ventilateur yi duñu upp ngelaw li féex ñi ñenn ñi sax di nelaw Égypte bi ñu wooree ba léegi ci mbedd yi la ñuy ndogu ci mbedd yi la ñuy xëddee ci mbedd yi la ñuy fanaan ci mbedd mi la ñu nekk di ñaxtu ci mbedd mi lañ leen fekk di leen rey ñun ñu toog fii ñun ñu ñu ëpp ci ñun sax yëguñu loolu yëguñu ne am na lu fa xew ñu ëpp ci ñun sax duñu duñu duñu duñu julli wala di woor ngoor ba ngoon sax di dog daal ne yàlla ay waay sama mbokk jullit yooyu ñuy sonal yàlla nga leen dimbali suñ doon lim fii ci jàkka ji ñu ko fi def motuñu trois personnes te dañ la ne dañ la ne ku yitte woowul mbiru jullit ñi bokkoo ci jullit yi loolu la yonent bi wax bépp jullit bu yëgul jullit yaa ngi sonn bokkoo ci jullit yi bépp jullit bu yëgul ne jullit yaa ngi xiif xiif googu metti la bokkoo ci ñoom bépp jullit bu yëgul jullit yaa ngi mer mer googu mettiwu la bokkoo ci ñoom yonent bi moo ko wax de man lam yahtam bi umuuril muslimina fa laysa minhum ku yitte wowul mbiru jullit ñi yonent nee na bokkoo ci ñoom ku bokkul ci jullit foo bokk kon ñu góorgóorlu doomu ndey yi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne yàlla nee na ndaw si wallaahu yàlla aalamu moo ko gën a xam bi ma wadaat li mu jur walay sa nekkul as zakaru góor kal un saa comme jigéen góor ak jigéen yemuñu nuroowuñ bokkuñu mu ne wa inni man sammaytuhaa tuddee naa ko Maryam Maryam lu muy tegi mooy xaadima mbindaan xaadimatu rabb taala kuy liggéeyal yàlla mbindaanu yàlla mbindaanu yàlla loolu mooy xaadim gis ngeen tur boobu la Cheikh Ahmad Bamba tuddee boppam mooy xaadimu rasul maay mbindaanu yonent bi kon kay xam nga ñu naan sëñ tubaa yàlla la ñooñu juum nañ sëñ tubaa ne maay xaadimu rasul nga ñëw nga naan ko yàlla nga moom nee na la man maay xaadimu rasul yow nga ne ko yàlla nga yow xam nga juum nga xam nga yow jaaroo fi mu la jaarloo lim la wax loo waxoo ko te looloo fi bëri sëñ bi wax lii gars yi ñoo wax leneen sëñ bi ne nañ julli gars yi ne ñun duñ julli waaw ñun dañuy joxe ndogu te sëñ bi waxu ko de waaw allahu akbar xaadim baat boobu maryam mooy xaadimatu rabb mooy kuy liggéeyal boroomam sa mbindaanu boroom mooy xaadim mar mooy maryam loolu ngeen gis maryam fii nekk fii yépp maryaama bi lañ leen tuddee déedéet turu jigéen la Mariam kenn du ko tuddee góor bu fekkee góor bi dafa bëgg a tudd kuy liggéeyal yàlla Abdul la tudd Abdullah mooy jaamu yàlla mu ne moom ndaw si tuddee naa ko Mariam wa inni man sammaytuhaa tuddee naa ko Maryam Maryam wa inni man uiisuhaa maa ngi koy làq bi ka ci yow yàlla wa zurriyataha ak njabootam allahu akbar ndaw si bi mu amee doom ba pare doom ji mu am kan la ko dénk yàlla moom dafa am doom jël doom ji ne yàlla maa ngi lay dénk doom ji ak njabootam wa inni man uiisuha maa ngi koy dénk di ko làq bika ci yow yàlla ndax moom rek mu ne wa zurriyataha ak njabootam lu tax nga leen di nëbb mu ne mina shaytaani rajim pour ñu rëcc seytaane moomu yàlla dàq ci yërmandeem seytaane moomu yàlla jam ñun nag ñun bu nu amee doom dañ koy dénk se dañ koy dañ koy dénk seytaane ndaw si bu mu amee doom kan la ko dénk yàlla ñun bu ñu amee doom ku ñu koy dénk seytaane boo amee doom looy def looy def boobu sax bu ndaw indi juróom ñaari bantu bale indi benn benn benn lan benn paaka ah nga daal di koy takk dugal ko ci njaganaayu liir bi nga ni moom mooy lan mooy aar liir bi nga génn dem ci buxaaba bi mu defal la benn téere ci loxo bi benn téere ci tànk bi nga takkal ko liir bi dénk nga ko seytaane doom bi fan la nekkoon liir bi fu mu nekkoon ci biir bi bi mu nekkee ci biir bi lan lañ ko takkaloon pour mu judd kan ma ko doon garder bi muy judd judd jot fi mu génn jaar fa kan ma ko fa jaarloo yàlla léegi mu judd nga dem di indi paaka ak juróom-ñaari bant bale ne juróom-ñaari bant bale moo koy garder ak paaka boobu sax jàmm la jouru tudd bi lan lañ koy ngéntee musique musique xale bi bi yaayam di ñëw dañoo musique bi mu juddoo ñu musique muy anniversaire ñu musique muy takk jabar moom tamit musique kon bu dee nu ñu war a def ñu war a def musique mu dee ñu teg alxuraan ne nañuy nax yàlla nag soo ñëwoon fi fekk benn dëj nga teggi kaset alxuraan musique bi nga teg kaset alxuraan benn dëj nga teggi kaset alxuraan bi teg kaset musique lu ñu lay wax lu ñu lay wax dañ naan la yéeféer nga yow wallahi yéeféer nga loolu lañ lay wax wala yow doo jullit gëmoo yàlla dëj bi yëpp ñooy jóg dóor la boo leen ne waaw kii kii dee nii bi muy judd dañoo musigoon bi yaayam di sëy si bi ñu koy takk dañoo musigoon moom mu judd ñu musique anniversaire am ñu musique kon kay bu dee nañ musique ñu ne la non mi nga mi nga mi nga bu fi indi wax waaw bu fi indi wax bàyyi noonu rek bàyyi noonu rek waaw bàyyi ñu teg alxuraan bi rek ah waa léegi yéen dafa am benn paa boo xam ne doomam dafa am doom waaw daf sëtam moo judd paa bi gars yi gars yi musique mu ne leen kenn du musique gars yi ne dañuy musique paa bi xeex ak doom ci maire yi dem jàkka ja daal di woo paa yi ne leen gaa ngeen wax ci diw mu ngi ne ci kër ga di di di kër ya problème te tey dañoo am xew mu ngi yàq xew bi paa yi daal di ñëw ci paa bi ne ko diw mu ne waaw ñu ne ko lan la mu ne ah man de dama ne kenn du musique ñu ne dañuy musique paa yi ne ko yow tamit bul yàq yëfu xale yi yow jeexal nga yow mag nga li nga doon am am nga ko ba pare léegi xam nga ni ñuy def léegi yow nañ dem jàkka ja bàyyi leen ak kër gi paa bi ne demuma paa yi daal di koy fab paa yi daal di koy fab ngurfaan ko ñi jàpp mbagg yi ñi jàpp tànk yi ñu yóbbu paa bi jàkk la paa bi yendu foofu ba ngoon foofu lañ koy indil añ paa bi mer foofu ñu ko indil léppam demul kër ga ñu teg cinq jours rek xale bi daal di gaañu liir bi ah ñëw ñu ne paa bi paa bi dem jàkk ji ne leen liir bi gaañu na de ñu woon nit ñëpp ñëpp ñëw paa bi daal di bàyyi bañ dem armée li ba ñëwaat rek mu daal di woo animateur bi ne ko ñu ngi dem jàkka ja balaa ñuy ñëwaat ñu jógee jàkka ja dañuy dem armée balaa ñuy ñëwaat sa këf kooku nga indi woon keroog ci ngénte gi këf kooku këf ku ñuul kooku mu ne waaw baaf yi mu ne waaw mu ne na nga ko indi mu ne sa kaset yooyu nga yoroon du yaa ngi ko yor ba léegi mu ne waaw mu ne bu ñu jógee ci armée yi rek nga dugal affaire yi booy bi ne ko ñaata la booy bi ne ko 15000 baa bi fay ah bis baa fi booy bi ñëw ne installé donc oto yi super yi jógee armée yi rek booy bi commencé nit ñi daw sogg booy bi baa bi ne bàyyi leen ko bàyyi leen jàmbur ñu ne musique lay teg baa bi ne man maa ko teglu man la bàyyi leen ñu ne ah waaye góor gi loolu kenn du ko bàyyi kii kii mu ne leen bàyyi leen ko di ngeen koy bàyyi coow li jóg ñu woy waat paay jàkka yi am na ñu fa nekkoon ci ñoom ñooñu bëgg wax mu ne leen hee ku musique teeru bi ngay gane àdduna boo deewee mu war laa gunge ku musique teeru bi ngay gane àdduna waaye boo dee mu war laa gunge waay waaw gars yi daal ciy jàpp paa bi ne booy bi tegal rek tegal bu kenn ba paa bi yeey leen ba xam ne ñoom xam nañ ne dañuy fen paa bi daal ne léegi booy bi arrêté nga dem ñibbi loolu ñun ñu def fii kan moo ko fi bëgg fi mu nekk nii ñun ñi kenn bëgg ci kenn kenn ci ñun bëggoo nga dee ñu teg ñu teg musique ku ko bëgg yëkkati sa loxo léegi nag dañuy bàyyi alxuraan bàyyi yàlla bàyyi yonent lu ñu am seytaane lañ koy jox dara desul nag lu dul dee ñëw na nag ñu ne ah nañ ko jox yàlla léegi nañ ko jox yàlla dee gi moom nañ ko jox yàlla bu ñu amee sulu lu baax ñu jox ko seytaane ndaw si bi mu amee doom dafa làq doom ji ci ginnaaw yàlla ak njabootam ñaan yàlla mu musal ko ci seytaan loolu liggéey la boo xam ne way jur daf ko war a def mooy fexe ba seytaane bu mu am bu mu am doole ci sa njaboot loolu nag programme la dafa am benn borom xam-xam bu mag bëri na lu muy juum trop waaye fii moom wax na dëgg nee na boo amee doom bul ko tere mooy yàlla ah boo amee doom bul ko tere mooy yàlla xanaa loolu garaaw na de nga am doom ñu ne la bul ko tere mooy yàlla bàyyi ko mu mooy yàlla ñu ne ko waaw yow sëñ bi li nga wax tey garaaw na de mu ne waaw xale bi doo toog naan ko bul def lii bul def lii da ngay fexe ba du am temps pour mooy yàlla da ngay fexe ba du am jot parce que ñiy dem stade di seetaani làmb dañoo am jot amuñu lu ñu def ñii dem soirée di fecc amuñ dañoo am jot sa doom da ngay fexe ba occupé ko su jógee ci lii mu ngi ci lii bu jógee ci lii mu ngi ci lii bu jógee ci lii mu ngi ci lii doo am temps nekk ci mbedd yi doo am temps di mooy yàlla waaye boo amee doom nga bàyyi ko muy lambar lambari lu ne mu dugg ci instant bii ñu nekk xale yi lu ñuy def école yi dañoo école yi dañoo tëj li ëpp ci xale yi lu ñuy def tambaambaalu daara yaa ngi ni daara alxuraan yaa ngi ni école cours de vacances yaa ngi ni colonie de vacances islamique yaa ngi fi mais déedéet gis nga école saa yu waaj a tëj da ngay gis gouvernement Sénégal mu tëral benn programme di commencé di yàq daara yi di leen xas xam nga lu muy bañ pour bu école tëjee nit ñi yóbbu seen doomi daara ñu jàngi bu njëkk ba Sénégal moo doon dëkk boo xam ne saa yu école tëjee nit ñi fan lañ leen di yóbbu daara ñu jàngi alxuraan mais tey dañ lay bàyyi nga jàng école ba pare bu école bi tëjee ñu indi nawetaan nga football bëccëg xumbal guddi nawetaan ban njëriñ la am na ma kenn wax nawetaan benn njëriñ bu mu am benn nit na ma wax fi benn nawetaan benn njëriñ bu mu am benn njëriñ am na ci jàkka ji kuy football nawetaan kenn footballu fi nawetaan nawetaan amul njëriñ football fan la bàyyeekoo anglais ñoo créé football est-ce que Angleterre am na nawetaan amul bu njëkk ba bu nit ñi bu nit ñi jàngee ba école tëj ñi nekk université dañuy dem ci tool yi dimbali ji seeni pap ak seeni yaay ci tool ya mais tey da ngay jàng béykol tëj nga toog Dakar naan damay nawetaan nawetaan ñaata weer la 3 mois 3 mois boo amoon tool nga bay ko gerte wala mboq wala dugub ba 3 mois yi jeex looy am di nga am xaalis ah 3 mois nga nekk ci stade bi di daw ba 3 mois yi jeex loo am ah coupe coupe nga am coupe yéen a gagné coupe bi ok d'accord yéen a gagné coupe bi coupe boobu coupe lan la or du ngeen ma tontu coupe bi or la waaye bu leen waxagum lan la dama leen poser question or la bronze la xaalis la jamaa la coupe bi lan la weñ gu ñuul boo ko tegee ñetti fan weñ ñi commencé saw loolu nga gagné weñ gu ñuul coupe bu ñu tent ci kaw bu ñu ko tent ndeysaan ñu tent ko benn lan muy melax ngeen wu- te yenn saa yi sax coupe bi bu ñu ko jëlee jox ko joueurs yi joueurs yi jox ko supporters yi ñu xëccoo ko benn nopp bi dañ coupe bi pat benn nopp bi dañ coupe bi pat wala yenn saa yi ñu xëccoo ko poids bi affaire ba roccee ko wiis ba dañ ñu leen di nax coupe coupe koñ bi ñoo gañe coupe bi koñ bi bu fekkonte ne équipe bi ñaata supporter la supporter yi ñaata lañ équipe bi ñaata lañ équipe bi nawetaan ñaata nit lay nekk ñooñu bu ñu leen daggaloon benn tool équipe bi nawetaan yi nekk Sénégal ñaata la équipe yëpp bu ñu leen yóbboon ba ci àll yi daggal leen tool ku nekk ñu daggal la 4 kilomètres carré équipe bu nekk ñu jox leen ñu jox leen bagage yi jox leen ji ñu nekk fa bay 3 mois yi ba ñu pare Sénégal lu muy am kon danañu danañu danañu maye danañu maye ceeb danañu maye dugub danañu maye yeneen dëkk yu ñu wër danañ jaay danañu maye waaye ñu nekk fi di football di bëri te dëkk baa ngi ne amul lu mu lekk te instant bi xoolal boo jógee fii léegi léegi samedi passé maa ngi woon Mboro samedi Mboro laa demoon bi ma xoolee yoon bi bi may dugg Tëngéej di jaar Sàngalkam jaar noonu bayaax ba ba ma egg Mboro bi ma xoolee àll bi dama xam ne Sénégal du ñu tekki Sénégal duñu tekki parce que ñun li ñu yàlla may pour ñu war ko dunde mooy suuf si te suuf si kenn jëmu ci damay romb yenn saa yi ay nit ñu nekk ci tali bi kii li mu yor ci loxo droitam diis mbuusu gerte diis mbuusu tàndarma di daw nga jaar ci autoroute bi waa ji di daw ci suba nga fi jaaroon ba ci ngoon nga ñëw fekk trois la jaay journée bi yëpp 150 la am parce que mbuus bu nekk 50 francs la te tey boo nekkoon ci tool ci nawet yi nawet bii nga nekk ci tool bi dina métti commencement bi mbay bi ji bi nga toog ba nawet bi jeex ba nga déqi wala nga looy yor ah ñetti weer yi waa ji def ci tali bi ñetti weer yi de waa ji def ci ci tali bi ñaa ñaata la jaay nañ jël 50 000 ñu ne jaay na 50 000 ñetti weer yi billahi wallahi taalaahi kii bay ba yàlla nangu mbayam mu am tool bu mat sëkk mu bay 3 mois yi ba mu jeex ñaata la am moom mais maa la saf te boo xoolee coono yi benn kese la parce que li nga nekk fi di va-et-vient di daw ci tali bi wala nga yenu benn kii boo xamante ne di nga wër parcelle ba géejawaay ba Grand Dakar ngay dox ak sa tànk mais loolu ak toog bay benn la te ñun bu dee ndox am na fi wala amul bu dee suuf am na wala amul kon lu fi des te tubaab bi bi mu fi nekkee di force suñu papa yeeg suñu maam yi naan leen fal force da ngeen di bay def leen ay mbaam xam ngeen tubaab bi loolu lañ doon def fii suñu papa yeeg suñu maam yi def leen ay mbaam di leen bayloo fal force boobu Sénégal moo doon deuxième puissance mondiale gerte adduna bi yëpp Sénégal moo nekkoon deuxième puissance gerte boobu tubaab yi dañuy ñëw ci àll Casamance yi sooy dem Casamance da ngay gis benn benn àll mu lëndëm nga jékki-jékki di gis fenn mu leer nañ tubaab yi ñoo doon fàq foofu garab yi dagg ko di bayloo ñooñu boobu lépp Sénégal daawuñ ko jëndi mais xoolal tey ñu ngi nii amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan gars yi dañuy xiif bay dem àllaaxira jaay ma café na ngeen dee boo xiifee di naan café la ku xiif bay lang ba di xool ko cur mu naan café café ku xiif du ko naan lan moo tax ñëpp di dund léegi café gars yi café la ñuy ndékkee moom la ñuy añee moom la ñuy reere moom la ñuy njogonaloo moom la ñuy moom la ñuy lu tax parce que dëkk bi moo amul lu lekk dëkk bi nit ñi dañu sonn xoolal ñiy jaay guddi lekk ñëpp ay jeexal d'accord ngeen dangay gis ngoon jot maire bi jaay fonde ñu gars yi dañuy ñëw di rang rang di rang pot yi rang maire sama pot a ngi nii de Sénégal bu demee bay rang fonde amoon na temps boo xam ne kër goo dugg fekk fonde la ñuy lekk da nga leen di yërëm d'accord ngeen mais tey kër goo dugg fekk ñuy ron ñuy lekk fonde ñooñu ay patron lañ am ngeen torox tànge moo ñu dal kon il faut ñu gëm suñu bopp liggéeyal suñu bopp mais ñi ñu jiite comme gëmuñu gëmuñu réew mi loolu moo tax yooyu yëpp dañ koy rey jël suuf si di ko def lu kenn xamul def ko seeni kenn xamul lañ koy def da ngay romb benn oto di daw nga romb benn miir boo xam ne toll na fii ba parcelle ñu ne la benn nit moo ko mën mu def ci ay garabu màngoom def ci def ci def ci def ci ay fas ay nag dañuy nax rek parce que ñun ñoo ko nangu aussi ñun ñoo ko nangu waaw olof yi nee nañ ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa kon suñu amee ay doom doom yi nañ leen dénk yàlla làq leen ci yàlla doom yi ak njaboot gi ñëpp dañ leen war a dénk yàlla subhanahu wa taala comme ni Mariam def mu ne yow yàlla inni man uiisuha maa ngi lay maa ngi maa ngi leen di làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam min alcheytaani rajim ci seytaane bi ñu jëm mu ne fa taqabbalaha rabbuha yàlla daal di koy nangu fa taqabbalaha nangu na ko rabbuha boroomam bi qubulin xasan ci nangu bu rafet ndeysaan yàlla nangul ko kado boobu mu jox yàlla góor la bëggoon waaye jigéen la ko yàlla may mais terewul la mu waxoon jël décision bi ba léegi ci la nekk mooy mu jox ko yàlla yàlla daal di ko koy nangul nangu bu rafet wa an bataha yàlla daan nay saxal xale bi daan na koy dundal nabatan xasanan yàlla def ko muy gàncax gu rafet yàlla daal koy def muy xale bu am barke bu am ñam muy moom Mariama wa kaffalaha yar na xale bi Zakariya yonent bu tudd Zakariya Zakariya mooy baayu Yaxya alayhi salaam wa kaanat imraatuhu uxtan li xanna soxna zakariya ak yaayu maryam ay sœur lañu maryaama xanna ak yaayu yaxya ñoo bokk ndey ak baay ay mag ak rakk lañ kon yaxya ak isa luñ bokk ay doomu doomu ay doomu ndey lañ seen ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay yaxya ak isa ñoom ñaar ba léegi fii nii ñu nekk ñoom ñoo bokk asamaan bu ñu nekk ñoom ñaar yonent yàlla muhammad romb na leen laylatul isra wal mi'raj ñoom ñaar mu ne dem naa asamaanu asamaanu asamaanu premier ban yonentu ma fa nekk asamaan bu njëkk bi aadama moo fa nekk ñaareelu asamaan loolu de sama montre yi moom kon du dem asamaanu ñaareel asamaanu ñetteel asamaanu ñeenteel asamaanu juróomeel asamaanu juróom benneel juróom ñaareel xanaa gis leen montre yi gars yi sama waay wan leen montre yi. yëkkati sa loxo. yi laa yor de yi laay joxe. bu trouvé rek ma jox la. di yow am nga. ñenn ñu am ci yi yow am nga ci. ak kan. gars yi am montre ci jàkka ji bëri nañ de. ñii ci jëkk yi nga amoon. di nga amaat di nga amaat mu ñor rek. indi naa yu bëri mu ngi ndeysaan gars yi jàpp leen yooyu waay isa ak yaxya ay doomi ndey lañ ndeysaan mu ne wa kaffalaha yar na ko zakariya zakariya zakariya mooy baayu yaxya zakariya moo yar mariam zakariya naka la yaree mariam dañ ko doon xëccoo ku nekk ne moo koy yar bi coow li bare yàlla ne leen subhanahu wa taala léegi da ngeen di dem ci dex gi ku nekk ne indi bantam bant boo xam ne day am biir ak biti maanaam bant bi mën na dëkku mën na jaaxaan yéen ñëpp ngeen ñëw ngeen sànni seen bant su ngeen sànnee seen ba- bant ci dex gi bant yi dañuy feey képp koo xam ne ci yéen bantam dafa wëlbateeku njëkk a egg tefes kooku mooy yar Mariam ñu daal def noonu ñoom boroom xam-xam yi fa nekkoon yëpp Zakaria tamit daal def dem ànd ak ñoom bi ñu demee ñoom ñoom ñu sànni seeni bant yàlla subhanahu wa taala daal di dogal ba su Zakaria wëlbateeku njëkk a génn ci ndox mi ñu daal di koy bàyyi ak Zakaria Zakaria nii la yaree Mariama waaye nekkul ne daf koo foqati ci loxo yaayam wala nekkul ne daf ko jaay doole déedéet yàlla moo joxe ndigal naka la ñuy yaree Mariama bi ñu toppee yoon woowu Zakaria daal di jël ndam li ñu jox ko Mariama mu yar ko mu ne wa kaffalaha yar na xale bi Zakaria yonent bu ñuy wax Zakaria waaye li ko li yéeme ci moom moom bi mu ko yaree dafa ñëw ba ci wetu jàkka ji fi sës mu defal ko fa benn néeg su nit ñi nekkee fii xale bi nekk fii waaye saa yu ñëwee ci néegu Maryaama boobu kullama daxala alayha Zakariya saa yu Zakariya duggee ci almihraaba néeg boobu sës ci jàkka ji wajada indaha rizqan mu fekk fa Maryaama yor ay wërsëg maanaam ay fruits ay lekk yu muy lekk day ñëw fekk pomme mango mandarine nangam nangam mu fekk mu toog raisin boroom xam-xam yi nee nañ yenn saa yi day fekk fruit boo xam ne warul ñor ci saison bii mu fekk ko fa mu waaru affaire bi commencé ko jaaxal mu commencé di ci poser question boppam benn bis mu dugg mu fekk fa lekk bi mu ne kullama daxala alayha gis nga kullama kon saa yoo xamante la woon dugg na rek dafay fekk lekk wajada indaha rizqan dafay fekk wërsëg mariama yor lu muy dundee benn bis mu ne ko qaala mu ne ko yaa mariamu e yow mariam anna laki haza waa yow lii foo koy jële ndaw si ne tekk ba caaga qaalat huwa min indillah yàlla moo ma koy jox lii nga gis mu ne mu ne min indillah yàlla ma ko jox kenn joxuma ko kudul yàlla day ñaan yàlla yàlla indil ko allahu akbar nit bu sellee rek bu ñaanee yàlla yàlla may ko su ngeen gisee ñun ñu mel nii ñuy ñaan yàlla may ñu selluñu ñu ñëpp dañoo taq waaye bu ñu setoon wicc taquñu benn tilim tilim wallahi bu ñu yëkkatee yàlla sunu loxo yàlla def ci dara waaye sunu bàkkaar yi ñëw bëri ba yàlla du nu may bi mu laajee Mariam lii foo koy jëlee Mariam ne ko yàlla ma koy jox gis nga fii boroom xam-xam yi dañuy jàngale ñu ne kilifa nii la war a mel kilifa dëgg day mel ne Zakaria saa yoo fekkee sa kër saa yoo gisee sa kër loo xamul noo war a def da ngay laajte nga jóge tafsir rek ñoo fekk sa doom yor portable 200000 sa doom bu jigéen loo war a wax yaa ndey anna laki haza moo ndey foo jëlee lii waaye déedéet da ngay toog rek yow sa nekk nga dégg ñu naan muudoo ko may ak Jean moo ko may ak nga toog rek suba nga gisaat mu létt létt yoo xam ne xamoo fu mu jëlee xaalis ginnaaw suba nga gisaat mu sol yére boo xam ne xamoo fu mu jëlee xaalis bar nga toogaat ba caag nga gis mu sol dàll yoo xam ne xamoo fu mu jëlee xaalis nga toogaat ba caag rek looy gis mooy biir bu kom fale su boobaa nag nga commencé wax nag fekk c'est trop tard kañ nga waroon wax mooy ca ba nga gisee lu njëkk la kii mu ngi nii dafa gis rek wax mu ne yow Mariam foo jëlee lii boroom kër noonu la war a def ci biir këram sa kër lépp loo ci xamul lépp loo fa gis changement koo gis mu dugg fa loo gis mu fay génn laajteel lii lan la parce que responsabilité bi yàlla fan la ko teg Zakaria bi ñu jëlee xale bi jox ko dafa def responsable am responsabilité am defal na ko nekk fu mu nekk ba pare di ko garder di di dem di ko nemmeeku ba mu fa gisee loo xam ne waru ko faa gisit dafa laajte lii fu mu jóge ndaw si xamal ko ne lii ci yàlla la bàyyeekoo Zakaria na xam ne yàlla mi nga xam ne saison bii nga xam ne lii du am yàlla di ci indi lii kon yàlla day mun na maa may lu nekk comme moom màgget la woon amul doom mu daal di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may doom borom bi subhanahu wa taala mu ne Zakaria laaj na Maryam ne ko foo jëlee lii mu ne ko maa ngi ko jëlee ci yàlla waaye yemalu ko foofu da ko ne inna allaha yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex bi xayri xisaab lu àndul ak benn regle lu àndul ak benn atte yàlla moo lay may te du am benn coono yàlla bu la neexee mu may la du am benn coono liggéeyoo demoo fenn goro yattoo demoo France demoo Allemagne demoo Angleterre nekkoo trafiquant drogue mbëréew nekkoo mbërul làmb yàlla may la alal mooy maye yàlla mooy maye te dafa yor te li mu yor doyewu ko dara yàlla nee na man yàlla maay may ku ma neex inna allaha yàlla yarsuku mooy wërsëgal man yasaaw ku ko neex bi xayri xisaab lu àndul ak benn regle lu àndul ak benn coono kon incha allah mbokk yi fi la ñuy yem ba suba ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu mu jéggal ñu njuum tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu